Euh, di leen ngeen nekk fas yéene ànd ak yéen ci émission bi nga xamante ni euh, moom ngeen di faral di am euh, saa su si waxtu wi ñu duppee ko li ci penc bi tey nag li ci penc bi dafa toxu génn ci studio Télé Futurs Médias yi ñëw fii ci Touba xam ngeen ne màggal bi daanaka tàmbali na ci xel yi ci xol yi ak ci li nga xamante ni mooy taxawaayu murit yi rawatina julitu àdduna bi ki ko daan defal nag. Euh, li ci penc moom mooy Aj Assane euh, kanam bi yaram bi xaw a sutante euh, ñu koy nuyu di ko ñaanal mu jóg rapidement moom Aj Assane fekk suñu fii ñëwaat jël si li nga xamante ni moom mooy émission man nag ma fas yéene jéem a wuutu Aj Assane ah, pour defalee li nga xamante ni moom mooy émission bi fii ci Touba ñu nekk ni ngeen ko gisee ci jumaa ji Touba ni mu ko waxee ci tàmbali bi màggal bi. Euh, tàmbali na commencé na ci xel yi ak ci xol yi ah Sénégal yaa ngi koy dox kilifa yaa ngi ciy taxaw euh, ku nekk li nga war a béy nga koy bay sawaar ngir mu mel na mu daan mel euh, ñu fas yéene nag ànd ak suñu ay invité ki njëkk ki may présenté moom mooy docteur Dieng di yëngu ci wàllu wér-gi-yaram nekk chef district fii ci Touba moom dinañuy wax si yépp li nga xamante ni moo jëm Euh, ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu santé comme ni mu koy waxee euh, lu aaju ci màggal bi wala sax xuus dugg ci li nga xamante ni moom mooy euh, dëkk bi ñu nekk di Touba. naka noonu Serigne Mbacke Abdou Rahim moom nag moo fi toogal ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Rahidu Rayahim j'espère que sëñ bi li ma ko waxee noonu la en tout cas moom si sous commission culture moom si lay yëngatu. Euh, dañ si ànd ak ak maire bi euh, naka noonu ak sous préfet bu Touba euh, maire bi nag ak sous préfet bi dañu ñu dab si kanam wala ñu leen fi toogal ndax xam ngeen ne jamono ji ñuy wax ak yéen njiitu réew mi di président Macky sàll mu ngi fii ci Touba. ñu ngi ci li nga xamante ni moom mooy cérémonie bi ba tax nag sous préfet bi ak maire bi loolu moo leen xaw a tënk waaye nag ñu tàmbali le temps ñoom ñu ñuy fekk si wala Euh, ñi nga xamante ni ñoom la ñuy yabal euh, ñu war a tàmbali li nga xamante ni moom mooy émission bi euh, noonu la taxawee tey jii ñu nag tàmbali ko ak sëriñ Serigne Mbacke Abdourahim sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar ci li nga xamante ni moom mooy li ñu fi dajale ak dayoom na mu na mu rëyee ak macha allah li ci nekk ci ay xéewal comme ni ñu koy waxee gannaaw bu ñu la nuyu dañ lay laaj laaj bu njëkk moom mooy dafay am très souvent ñuy. xaw am ay réeroo ci ñu ngi si ñaar fukk ak ñeent euh, euh, téeméer ñaar fukk téeméer ñaar fukk ñett téeméer ñaar fukk ak ñaar yow ngay nekk si wàllu culture si li nga xamante ne mooy euh, sous commission boobule. lan la sénégalais yi war a mun a jàpp si ñi nga xamante ne xëy na amaguñu lu leer si fan lañ ci toll. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñu bàyyi xel yëpp man Serigne Mbacke Abdourahmane laa tudd. Mhm. teew fi ci turu daairatu rawdu rayahin mi nga xam ne lu jëm ci wàllu xam-xam moom lañ ko dénk mu koy saytu ci màggal gi ak ci biir dëkk bi di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel ñépp noonu nga ko waxee màggal gi xew-xew bu rëy la boo xam ne daj na Sénégal mën na ma wax ne daj na àdduna bu ñu nuyoo mbokk yi dalal leen ñaan ñu àgg ci bis bi ak jàmm te liñ ci séenu ci ay yiw ak i xéewal ak ñaan nañ fi def yëpp ñu ñaan yàlla sotti ko ci réew mi mhm. waaye jëriñ ci jullit yëpp fu ñu mën a nekk mhm. di nuyu docteur Dieng bi nga xam ne moom laa fi bokk teewal mhm. euh, di ko ndokkeel moom itam rafet taxawaay la ci dëkk bi xam nañ ko bu baax taxawaayam ci wàll gi mu yëngu di la nuyu yow itam ak ñi nga àndal ñëpp bàyyi ko Dakar ba agsi di leen sant ci seen taxawaay ndax taxawaay yu rafet la yu am solo la jataay yu mel ni ñi fekk si nit ñi ñu waxtaan ak ñoom ci li xew nam xewe ngir tontu laaj bi ngay laaj dëgg la ñu ngi wax ne ñu ngi ci téeméeréelu màggal ak nangam waaye jàpp naa ne wax yooyu yëpp yu ma bàyyi xel la ñi koy wax ñi ngi ko tàmbalee bi sëriñ bu mag bi demee ci géej loolu mooy 1895 la fi bàyyi ko woon tubaab bi jël ko yóbbu 1902 mu ñibbisi ñu yóbbuwaat ko gànnaar yóbbu ko Ceyeen jële ko yóbbu ko Njaareem bi mu ñëwee Njaareem nag la door a joxe ndigal mag yi te am na fa ay sax door ko woote du sori diggante ay vingt neuf trente. Mhm. vingt neuf mille neuf cent mille neuf cent vingt sori diggante yooyu ci la santaane màggal gi doon ko woote. Mhm. waaye booba it nag dawuñ ko defi Tuubaa. Mhm. booba dafa waxoon rek fu waay nekk bis dikkee. na ko santale yàlla ci xéewal ko yàlla defal ci bis bi. ci nag la ko Serigne Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moo doon ñaareelu xalifaam moo ko njëkk a wootee Touba kon bu ñuy wax màggal gi ñuy màggale Touba kon li tàmbalee 1947 ba léegi la ñu war a wax loolu nag ay juróom benn fukki at ak lu war doon waaye téeméeri nangam kon daal fu nekk dafa am fu mu fu mu jàpp ñii ca woote ba ñii balaa woote bi xam nga màggal gi moom bokkut ak tukki bi tukki bi tukki bi moom am na lu yàgg te màggal gi amul ah. bu fekkee dañuy wax ne bi sëñ bi demee ci géej gi léegi mm-hmm. mën nañu wax kon téeméer ak ñaar fukki nangam mm-hmm. bu fekkee biñ tàmbalee màggal Touba ak léegi mm-hmm. juróom benn fukki at ak nangam bu dee bi sëñ bi joxee ndigal léegi léegi nag. Mhm. moom mi ngi tàmbali ay 1930 jëm si nii. Mhm. waaw léegi euh, sëñ bi léegi man man mi par exemple man ak ñi mel ni man ñi ñi jaawale euh, wala di jàpp fii ñi ne ñee ñoo euh, am dat bu baax bi wala ñële la te Touba xam nañ ne du murit rek ñoo ko moom <laughs> yàlla def na ne Touba Touba ñëpp la léegi loolu la yàlla dogal. naka jëkk sénégalais bu nekk naka jëkk dëkku ñëpp la woon. dëkku ñëpp la. Touba ñëpp si gis seen bopp. léegi ku taxaw par exemple ne man daal damaa bëgg xam exactement ban moo ci bu baax bi date bi yow ban nga koy digal. dama koy digal mooy dama koy laaj li mu bëgg a wax ndax. ndax nit ki mën naa am bi sëñ bi tukki ak léegi kañ la. ñaata at ñaateelu at li mooy ren. Mhm. suba mën nga jàpp téeméer ñaar ak ñaar fukk ak li ñuy wax nii. Mhm. ndax 1900 1895 la fi jóge woon. Mhm. waaye su fekkee ne dama bëgg wax ne ma kañ lañ tàmbali màggal Touba. màggal gi bokkut ak magal Touba. màggal gi am na ay at. ñu door ko woote Touba. bu fekkee dañ ma bëgg a wax kañ lañ tàmbali woote Magal Touba. ñu ngi cent vingtième wala cent vingt troisième. wax ci cent dara ndax matagul cent. Mhm. soixante diggante soixante ay quatre vingt la. Mhm. ndax benn ñu jàpp bi ku sëñ bi wootee. Mhm. ay mille neuf cent trente. sori foofu. ba léegi loolu matul téeméeri at. wala bi ku sëriñ Fall andee Touba. jàpp naa ne bu ñu doon wax kañ lañ tàmbali Magal man nañu jàpp rek at ni ko sëriñ bi digle jàpp ne du sori mille neuf ba léegi. mën nañu wàññi at yi at mu jot booba murid def nañ digal li caay barab yu wuute. Mhm. ba ni ko Serigne Fallou wootee 1947 fii ci Touba. Mhm. kon daal euh, man daal su may diglee man damay wax euh, yëpp benn la li si am solo mooy bés bi rafet euh, rafetlu ko def si ñaan yi ni ñu koy faral di defee jërëjëf sëñ bi ñu ñëw si docteur Dieng docteur ñu ngi lay nuyu si sa teewaay docteur. ma bàyyi la nga nuyu d'abord parce que xam naa ne waa tubaa ñu ngi lay seetaan parce que je rappelle que ñu ngi en direct fii ci Touba la tàmbalee laaj sama laaj bu njëkk. sallallahu alayhi di yëkkati nuyoo ak ziar jëmale ko ci ku tedd ki sëñ Sidi Mokhtar Mbacke. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. di ko ñaanal mbooleem njabootu sëñ Touba ak mbooleem taalibe yi. di sant yàlla bu baax ci fekke gi ñu fekke màggal gi te fas ci yéene. liggéeyal sëñ Touba. comme niñ ko daan defee at yi weesu. ñu ngi yëkkati nuyoo tamit jëmale ko ci suñu sëriñ. sëñ Alaaji di la ziar. di nuyu Papis. di nuyu aussi téléspectateur u TFM yëpp. jërëjëf. Euh, di leen ziar di leen ñaanal ñu màggal si ci jàmm. ci jàmm ci jàmm. waaw may wax ne euh, Télé Futurs Médias du ménager benn effort euh, gis ngeen ko tàmbali na noonu lañ koy taxawee incha allah ba màggal bi jeex ñu koy waxee. en amont en naval avant pendant ak après docteur laaj bi muy njëkk laaj mooy nga nekk Touba yàlla dénk la fi euh, si li ngay yëngatu nekk fi kilifa ci wàllu wér-gi-yaram ñu ne màggal Touba tàmbali na wala mu ngi waaje tàmbali yow si ban état ngay nekk ndax dayo bi ak li nga xamante ni moo ci am ci wàllu responsabilité. Euh, dañuy sant yàlla rek ndax mhm. ñun ay taalibe lañ. Mhm. donc su màggal ñëwee comme ni taalibe bu nekk di def ci wàll wi nga féete. Mhm. da takku. fas yéene liggéeyal liggéeyal sëñ bi. Mhm. ñun dañu féete ci wàllu santé. Mhm. ñoo yor district sanitaire de Touba. Mhm. muy district bu ëmb vingt cinq postes de santé. ak itam centre de santé. mu am aussi deux hôpitaux yu fi nekk. muy hôpital Ndaamaatu ak Matlaboul Fawzeyni. ma ziyaaraale ki ñuy wax docteur Souran. nekk suñu mag. nekkoon suñu kilifa ci liggéey bi. ñu koy ziyaar. di ziar docteur Guèye Diouf. Mhm. ak suñu mag ci région bi muy ma Serigne Ndiaye. Mhm. donc ñooñu ñëpp nekk ay acteurs yoo xam ne. Mhm. ñoo uuf màggal gi ci wàllu santé toogal fi ministère la santé di ko doxal. man ma yor li nga xam ne mooy district bi. ma ciy liggéey ak ay infirmier chef de poste ak sage femme. ak équipe bi may jàppale muy équipe cadre bi. loolu liggéey bi ñu ciy def mooy su màggal gi jubsee dañuy tenir ay réunion déjà màggal gi dañu taxawal ay commission secteur de la santé dañu mhm. taxawal ay commission mhm. am na commission ressources humaines may ziyaaraale Serigne Saliou Ndaw ak ñoom Habib Niang ñoom ñoo yor commission ressources humaines bi mhm. commission logistique ak commission finance ak commission communication donc loolu dañ koy coordonné ku ci nekk ñu jox la cahier de charge nga ciy liggéey cahier de charge bi par exemple soo jëlee commission ressources humaines mooy commission bi càmbar ak di saytu ressources humaines mooy maanaam euh, prestataire de santé yi war a ñëw jàppale lañu ci màggal yi ak itam point yi nga xam ne moom la ñuy ériger ci biir dëkk bi parce que dëkk bi dañ koy maaye avec des points de prestation ñu ngi am ñetti type de points am nañ des points fixes muy hôpitaux yi Mm-hmm. centre de santé yi ak post de santé yi mm-hmm. donc comme ni ma waxee y a deux grands hôpitaux Ndamaatu ak Matlaboul Fawzeyni mm-hmm. à côté de ces hôpitaux y a centre de santé de Darou Khoudoss muy aussi centre de santé bu mag boo xam ne am na pavillon d'hospitalisation maternité ak jumtukaay yi war yëpp pour taxawu nit ñi loolu ñu lëkkale ko ak réseau wu poste de santé boo xam ne dañu éparpillé maanaam dañ leen tas ci biir dëkk bi. Mhm. muy vingt cinq postes de santé yoo xam ne ay infirmier chef de poste. Mhm. ñoo fa nekk di taxawu nit ñi. Mhm. su màggal jotee en plus de ce dispositif traditionnel mooy li nga xam ne daf fi nekk. muy poste de santé yi ak centre de santé yi ak hôpitaux yi. dañuy def ay postes avancés. c'est-à-dire au niveau de Touba zone yi nga xam ne dañ leen identifier comme étant des zones. susceptible d'accueillir de grands rassemblements maanaam ay zones yoo xam ne dañ fay am ay rassemblements. Mhm. dañ fay samp ay bërëbu fajukaay. Mhm. ñu tuddee ko point avancé. Mhm. point avancé yooyu dañ fay déployer ay prestataires. dañ fay yóbbu ay médecins ay infirmier ak ay sages pour ñu def ay consultations gratuit euh, deux jours avant le màggal. durant le màggal e deux jours après le màggal. après le màggal. nga xam ne dëkk bi yëpp dañ fiy érigé on a actuellement cent trente trois points de prestation. Mhm. yoo xam ne quartier boo jël. Mhm. am na ay points yu ñu fa euh, dinañ dinañ si loolu. c'est euh, ci li nga xamante ni moom mooy aspect organisation la bi disposition yi nga xamante ni moom ngeen jël euh, sëñ bi Mbacké yaa ngi ci sous commission culture ah ci nga xamante ni moo jëm ci wàllu organisation màggal bi. Euh, culture si nasaraan moom mooy caada hmm, wàllu wàllu aada euh, lan mooy si seen seen taxawaay yéen ci wàllu commission boobu ci wàllu aada ci biir màggal nga wax culture ci biir màggal. lu xóot la war a doon normalement. jërëjëf sëñ Papis man culture du ma ko firi aada xam-xam la. xam-xam <laughs> euh, ñun sunu taxawaay. ci daayira bi ñu nekk muy daayira Rawdu Rayaahiin te sëriñ Ahmadou Badawi Mbacke jiite ko. Mhm. Mhm. sëriñ Mahamadou Fadil. Mhm. ñu koy nuyu di ko ziara ci. taxawaay bi muy taxaw lépp ci ndigalu kilifa yi ndax Serigne Saliou Mbacké moo joxe woon ndigal. Mhm. ñu sos daayira bi ngir taxawaay yi ci wàllu xam-xam. ci mhm. màggal gi. Mhm. di ko def sëñ Mahamadou Lamine Bara bi mu ñëwee da dëgëral Cheikh Mahamadou Lamine fi nekk xafisahullahu taala wa raa dafa ñëw gën koo dëgëral joxe ci ndigal. moo tax at mu jot ñun suñu taxawaay ci wàllu xam-xam la jëm su màggal gi jubee. ndax dañuy xam nag ne xew-xew bi ak lu mën a xew diine la. li ci wàll si lépp lépp da cee wàll si ndax liggéey jaamu yàlla bu doon liggéey yàlla ba yàlla nangu liggéey ba. Mhm. bu ko gërëmee ngërëm la amul fu mu yem. Mhm. mooy dem ba yeneen yëpp fàll si. Mhm. koom-koom yeeg yeneen yi ci dugg yëpp. ba waral sëriñ Dieng ñoom ñi taxaw ci wàllu wér-gu-yaram bi. mooy diine mu am ndam. su boobaa nag diine jooju war na muy fés. ci bisu màggal bi. ñu xam li mu sëriñ Touba. Euh, yàlla la ko tegoon am nattu. te yàlla ku mu bëgg a lay nattu Ibrahima alayhi salaam moo wax ne su yàlla nammee ci jaam yiw dana ko tegi nattu su la nattoo nga muñ ko muñ gu rafet gërëm nattu bi mu teg mu fay lay xéewal kon sunu borom fayee ko xéewal mu yëg xéewal gu rëy gum rëy ci ba tax mu ne xeeb na ci cantuk bopp ñaan julit ñi mbokk yi xare yi njaboot gi ñëpp ñu sant ko yàlla loolu moo doon cosaanu màggal ci ay bernde ñu gisoon nag ne bernde yi bari na lool xeeti xéewal lu ñuy def mm-hmm. waaye am xeetu bernde woo xam ne it bariwut fu muy bariwut lool mm-hmm. muy bernde xam-xam ndax gan ñi fi ñëw da cee bari ñoo xam ne ci ay këri diine lañ bàyyi ko mm-hmm. ay ñam noonu nan nan ngay gën a leeralee bernde xam-xam ci lay ñëw xam nga nit ñi dañu fi ñëw na tubaab boo demee bernde dañ lay taaj ñam yi naan yi bari na waaye am na ñoo xam ne yooyu suru leen ñam wël mën a taaj tuuti lañ ci lekk jóg waaye boo leen taajee ndabul xam-xam waxtaan ak ñoom ci xam-xam. wan leen li Serigne Touba liggéey ci xam-xam. moo leen gënal nga taaj leen ay ay ñam. loolu lañ amoon digal nañ ubbi kon kàggu sëriñ Touba gi. tànq ci xam-xam yi ci nekk jox ko gan yi fi ñëw. at mu jot guddi màggal gi. conférence bu mag la ñuy fii ci kër gu mag gi. mbooleem ñu jóge ci këri diine yi ñoo koy bokk teewe. ak gan ñu jóge bitim réew te doon kilifay diine. saa bu ñu dikkee dañ leen tànn benn tomb ak sëñ Touba sëñ Touba xam-xam mm-hmm. sëñ Touba sunna mm-hmm. sëñ Touba liggéey sëriñ Touba jàmm thème yu bari jaar nañ ci waxtaan mm-hmm. ren ñi ngi bëgg a waxtaanee sëriñ Touba ak alxuraanul karim ban taxawaay la amoon ci alxuraan gan yóbbaale taxawaay boobu kon kon kon ren moom mooy sëriñ Touba ak alxuraan alxuraan ren ci guddi magal bi conférence bu mag bi loolu mooy tomb bu ñu bëgg a waxtaanee uh-huh. lu ko jiitu it waxtaan nañ ko ci ay table ronde yu bari yoo xam ne télévision yu bari teg nañ ko. Mhm. sëñ alxuraan ci anam yu bare bari mhm. waaw euh, sëñ bi il faut ma euh, laaj lan moo tax ngeen tànn euh, ndax dañ nekk si àdduna boo xamante ni dafa xaw a yëngatu. Mhm. diine xëy na du Sénégal rek la am waaye ku nekk ak noo koy dundee ak xëy na sa sa façon ba ñeneen sax di wax ne dafa bëri ay xeetu lislaam est-ce que tànninu sëñ Touba ak alxuraan amul lu mu jotalee ak yëngu-yëngu àdduna bi tey jii ci wàllu lislaam ci boppam. ah kay xam nga ñun li ñuy tànn saa su nekk. Mhm. dañuy bàyyi xel fi jamono toll. Mhm. fu jamono toll dañ fay ñëw bëgg a wanewaale jàngale Serigne Touba ci loola. Mhm. bi ñu tolloo ci jamono jàmm. wane nañ Serigne Touba ak jàmm la liggéey ci jàmm lan la ci joxe loo xam ne ñu ko bàyyi topp. bu ñu noppee téere waxtaan woo ab conférence la mais dañ waaye koy bind. gan ñi fi ñëw dañ leen ko jox ñu yóbbaale. mu nekk delluwaay boo xam ne bu ñuy gëstooti man caa dellu. Mhm. at mu jot conférence bu fi mas mhm. bind nañ ko séddale ko gan ñi ñëw mhm. ren jii incha allah loolu dana am ngir lan kon fi ñu toll ci àdduna alquran ni mu fi toll fa yàlla lim yor jafe-jafe yi àdduna dund yëpp buñ tënkoo ci alquranul karim mu saafara ko ab julit mooy alquran bu ci tënkoo lépp fu mu bëgg àgg dana fa àgg sëriñ Tuubaa mi ñuy waxtaane tënku woon ci alquran moo ko may lim waaw parce que xam yaa ngi wax léegi euh, culture moom mooy euh, euh, yow ni nga koy càmbaree moom mooy xam-xam yemook ngeen bëgg a waxtaane ci tombub Serigne Touba ak alxuraan mhm. ma dem ci kaw ne jamono ji dafa xaw a jaxasoo même ci wàllu l'islam ci jullit yi seen bopp mhm. alxuraan fan la war a toll ci sa xam-xam mhm. tey jii fan la war a toll parce que am na ku nekk nu mu ko bëgg a jàngatee tey jii mu dem ba di génn sax si loxo borom diine ñi ko tënkoon wala ñi ko ñi ko màttoon tey ji yow si nga bokk xëy na borom xam-xam nga fan la alxuraan toll tey si ngi xew si àdduna bi tey. waaw xam nga diine. ay jàngale naka jekk déggin yi tollawul naka jekk ba yonent alayhi salaam ñëwee daan jàng benn aaya wala mu joxe lenn ndigal. waaye ñi koy déglu duñ bokk nuñ ko déggee. foofu lépp laaj mooy ñor. jaam bi su góorloo kem kattanam. ba lam mën a dégg mu dégg ko jëfandikoo ko njaaram da wàcc waaye nag li am solo mooy jëm a dégg alxuraan euh, bu ma la waxee ne la jafe-jafe yi am ni yëpp lu mën a saafara mm-hmm. lu tax saafara wut mm-hmm. mooy dégguñu ko mbaa boog jëfewuñ mm-hmm. ñaar rek moo mën ñu bëgg joxe ñun misaal ne Serigne Touba mi ko déggoon doon ko jëfe saafara woon na ci ay jafe-jafeem nekk nag tubaab bi ñaataat teewut muy woote lim mu doon woote di yaatal diine ba ko tubaab bi indee it diine ji doon waxee di ko saxal tubaab ba dem na. woote sëriñ bi mi ngi gën a jëm kanam. tubaab yooyee seeni njaboot ñi ngi ñëw di wuy si woote bi. kon am na dam ci seen kaw. loolu tënk woon ci alxuraan moo ko may. kon tolluwaayu alxuraan bu mu ko doon wax rek mooy dégg ni wuute na ci naam. waaye dégg ni wuute yëpp am njàngale la xam nga diine ji ay école la. wax du ma wax ay lislaam ay lislaam man waaye jenn moo am. waaye nag ay école la yoo xam ne kenn ku ne na ko déggee. Hmm. déggin yooyu naka jekk mi ngi doon am. waaye wuute gi fi mu mooy dafa bu fekkee sellal moo ko lal dañuy liñ déggoo dañ ci ànd jàppalante ci li ñu wuute ñu maslaa ci mhm. naka jëkk loolu mooy doxal adduna. voilà loolu nag la sëñ bi jàngale woon. Uh-huh. wuufoon fii ba mu nekkee fii wootee na ab tariixam. Uh-huh. waaye waxoon na ne tariixa yëpp ñi jiite tariixa yëpp sooy sëriñ lañ ñëpp masaayix yi sayyiduna jilaani wa shaadali yu maaxoo tijaani. Uh-huh. nee na Cheikh Ahmad Abdou Khadir Jilaani Cheikh Abul Hasan Ashadali Cheikh Ahmad Tijaani ñëpp sooy sëriñ lañ. bu dee ci jàngale fiq nee na borom ngir yëpp samay sëriñ lañ sama imam lañ mhm. ay imati fil fiqi malikul ali mhm. mooy moom doon ku déggoon diine déggin woowu lañ bëgg mhm. mu yaatu ñi nit ñi su boobaa li ñuy jàmbat ci lislaam mën naa jeex mooy na ñëpp danañ dund diine su wuute amee danañ ko mën a dékku xajoo ko ni ni ko mag ñu njëkk ñu xajoo woon daanañ wuute de waaye wuute gi mësul jur aw ay ndax dafa amuloon dara lu ci lu ci rax. dafa mel ni léegi. dañoo jël dara rax ko ci. ci ci alxuraan bi loolu ci rax nag lañ bëgg mu génn. ndax alxuraan moo war a moo war a ñu sax ñiy wax ñëpp alxuraan la dellu. Mhm. waaye ni ñu koy déggee mooy wuute. Mhm. mooy interprétation bi ñu koy déggee mën naa wuute waaye mhm. wuute googu wërta tax nag. mu doon ngaa nay lu ñuy jël di ko tojante bopp. voilà nañ ñëwaat ak yow léegi. may fàttali ñu ngi en direct fii ci tubaa euh, ci émission euh, euh, TFM bi leen di proposé li nga xamante ni moom mooy Euh, màggalu Touba bi ñu euh, tàmbali wax naa ko ci njëlbeen bi ci xel yi ci xol yi ak ci taxawaay bi gis ngeen ne euh, donte bés bi yeggseegul waaye tàmbali na docteur yaa ngi doon wax sànq ci disposition yi nga xamante ne yéen a ngi koy jël wala jël ngeen ko sax ba ba noppi Touba nekk bërëb bu bu yaatu car macha allah nekk it loo xamante ni dëkku événement la comme li ni mel bu ñu bëggee tënk wax ji est-ce que mën nañ la laaj ndax tey jii bu ñu ne woon màggal gi suba la. yéen waa wér-gi-yaram pare ngeen pour euh, tàmbali ko suba ci misaal. Euh, ci mën nañ ne pare nañ. <laughs> parce que dispositif bi ñu teg en place. daanaka lépp yemb na. ba tey jii euh, tey jii ministre de la santé. yebal na fi un don d'ambulance. Mhm. ay ambulance yu bari yoo xam ne. Mhm. dafa ñëw renforcer suñu dispositif. Mhm. lu ci profité pour remercier ko ci loolu mu def à la mhm. veille du màggal mhm. leneen li mooy euh, ku nekk dégg na li xew ci yeneen réew yi mhm. muy wàllu feebar boobu nga xam ne euh, nit ñi dañ koy ragal loolu jël nañ ci ay matuwaay yu mat mooy Ebola donc jël nañ ci ay matukaay yu mat sëkk ne sensibiliser nañ population bi depuis bi nga xamee ne dégg nañ ko ci yeneen réew yi ñu renforcer waat sensibilisation bi ci bi Sénégal amee le cas importé le cas importé mhm. euh, fan yi ñu weesu ak préparatifu màggal gi taxaw nañ ci taxawaay bu mucc ay mhm. daanaka def nañ ay stratégie porte à porte diffuser nañ ay spot ci rajo yi. Mhm. def nañ ay émission ba pare loolu ñu ngi wéy di ko def. pour gën a yee nit ñi ci wàllu set. pour que nit ñi di raxas seen loxo. fexe aussi yaatal set bi. ci bépp anam. mooy biir kër yi. ak dëkkuwaay yeeg yëpp ñu fexe mu set. service d'hygiène aussi dafa lëkkaloo ak ñun. di ci liggéey. pour que feebar boobu bañ dugg ci biir réew mi. Uh-huh. waxuñu sax Touba mais mu bañ a dugg ci biir réew mi. Mm-hmm. jël nañ ci ay matukaay aussi au plan sanitaire. Mm-hmm. pour tàggat ay nit. pour ñu mën a dépister li ñuy wax dépister mooy mm-hmm. jéem ko ràññee su fekkee njort nañ ko. ci nit xam niñ koy gëstoo. teg nañ aussi réseau boo xam ne lu ñuy wax réseau de surveillance épidémiologique mhm. muy ay médecins ak ay prestataires yoo xam ne mhm. taxaw nañ pour mhm. saytu wàllu dëkk bi lépp loo xam ne daf fi dugg ci wàllu feebar ñu mën ci taxaw ci nu mu gën a gaawee am nañ yaakaar ne du fi dugg ndax taxawaay yi ci am ak ñaan gi nga xam ne sëñ bi ñaan na ci leneen li itam mooy su fekkee wàllu médicament la ministère de la santé dégagé na suffisamment de médicament ba conditionné nañ leen. Mhm. pour mën ko indi ci point de prestation yi. Mhm. donc ci wàllu médicaments yi. Mhm. lépp yemb na. Euh, ci wàllu docteurs yi seet aussi. réquisitionné nañ. ay médecins yu nekk à Dakar ñii Kaolack. kon kon kon bu màggal amee euh, ministère de la santé dafay jël ay yeneen docteurs yu yëngu feneen. andi leen en renfort pour euh, pour événement bi. c'est ça ndax dispositif bi. ñu ngi utiliser mille huit cent prestataires. entre médecins sages-femmes infirmiers. ak ay spécialistes. notamment ay cardiologues ay gynécologues dermatologues. loolu soo xaymaa li nekk ci dispositif bi yëpp. loolu mille huit cent prestataires la. sans tenir compte ci daayira yi nga xam ne dañuy ñëw di dal ci ay kër sëriñ. nga xam ñun dispositif bi nga xam ne moom lañ formaliser. boobu la cité mais am na à côté un dispositif informel bon mhm. informel entre guillemets parce que bokkuñu ci dispositif bi nga xam ne moom lañ taxawal mhm. mais dañ leen di superviser mhm. pour ñu mën a dëppale seen faj ak li nga xam ne moom lañ bëgg fii ci dispositif bi kon tey jii mën nañ jàpp ne secteur de la santé su la direction du médecin chef de région ak coordination biñ ci def yaakaar nañ ne mën nañu taxaw gérer màggal gi su doon suba la. suba suba parce que li ci war yëpp. Mhm. dajale nañ ko te taxaw na. Mhm. voilà loolu je crois que leer la. Euh, El Hadj Falilou Ndiaye moom moo ñu euh, dab ni à l'instant ci plateau bi euh, muy adjoint au maire bu bu Touba ni ñu ko waxee woon sànq si njëlbeen nga maire bi dafa nekk ci yittey njiitu réew mi président Macky Sall mu ngi ci Touba jamono ji El Hadj ñu ngi lay nuyu di la gërëm. Euh, di la bàyyi nga nuyu sa euh, xam nga ku wax adjoint au maire moom wax euh, politicien ku bëgg am ay waxtaan ak ay militant ak ay ñi nga xamante ne ñoom ñooy population bi Touba ngi lay seetaan xam naa en direct lataa ñuy laaj ñu bàyyi la nga nuyu sa sa sa sa ay population d'abord. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi lay nuyu di la gërëm nuyu mbooleem képp koo xam ne yaa ngi nuy seetaan fii ci Touba ak Sénégal ak bitim réew ñëpp di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo lañu fekk muy Serigne Mbacke Abdourahmane muy docteur ñee mi nga xam ne moo jiite district sanitaire bu Touba euh, ñuy fekk leen fi ak yow mi nga xam ne yaanu dalal ak mbooleem waa TFM yëpp di rafetlu itam jataay bi jërëjëf ak émission bi nga xam ne am ngeen ko yëpp di leen nuyu nag ci turu comme ni nga ko waxee léegi mm-hmm. Euh, le maire de la commune de Touba. muy monsieur Abdou Lahad Ka mu waroon a teew fii def émission bi ni nga ko waxee. Mhm. waaye yàlla def mu nekk ci ay tënk-tënk. Mhm. yabal ma ne naa ñëw représenté ko. Mhm. kon maa ngi nii ñëpp. ku ñuy seetaan. di leen sant di leen gën voilà euh, damay des si yow euh, El Hadj Falilou docteur Dieng moom wax na léegi nee na bu ñu woon màggal bi suba la ñoom ci wàllu wér-gu-yaram pare nañu. alors yéen euh, ngeen di euh, commune am tamit taxawaay boo xamante ne war ngeen koo taxaw ci mbir mi euh, lan la waa Touba wala boog waa Sénégal wala seen gan yi lan la ñu war a mën jàpp ne ñun yéen waa commune bi lii mooy seen participation wala loo xamante ne assuré ngeen ko par rapport ak ak màggal bi nga xamante ni incha allah moom la ñuy si moom la ñu jëm nii. ah jërëjëf loolu moom ni ko docteur Dieng waxee rek. Mhm. ñun commune lañ. Mhm. avant ñuy nekk commune tam màggal bu ñëwee suñu màggal dañ ci daan participer niñ ci waree. ci domaine yëpp. ca tàmbalee ko ca mbale ma. seetal dëkk bi. ba ñëw ci santé bi ñëw ci ndox mi ñëw ci lépp. bi yàlla defee ñu nekk commune itam taxawaay booba lañ taxawaat. Eh, bi màggal gi tàmbali def nañ lan daan def. yokkaat ko bu ñu defoon ne fukk la ñu def ñaar fukk. ci wàllu mbale ma ca gasoil ba ca oto yañ joxe ca lépp. bi ñu ñëwee ci wàllu hydraulique itam. Mhm. kenn ku nekk dégg na li nga xam ne ay kilomètres lañ joxe. Mhm. ci ay tiwo mhm. joxe ko ngir jàppale waale ko waa hydraulique. jàppale waale ko waa maa u rahma yi nga xam ne ñoo yor euh, li jëm ci wàllu woowu. ci wàllu itam santé. noonu lañ ci toll ñoom itam am nañ loo xam ne ñu ngi ci waxtaan ak docteur. ndax moom mooy sunu interlocuteur ci wàllu santé. mooy sunu lépp. Euh, taxawaay nañ ci ren am na beneen taxawaay bu rëy buñ ci am mooy fexe nañ ba jëlee ay médecins Europe Italie yoo xam ne suñuy collaborateur lañ relation bu ñu am ba tax ñu war a ñëw lu war a toll ci juróom-ñaari médecins yoo xam ne indi nañ seen i garab ñëw defe naa la cinq lañ war a arrivé fii ci Touba ñëw fii ngir jàpp ci pat mi ci suba rek yàlla def na suñu xarit bi ñu ngi ko ci jokkoo ak moom ñooñu suñu indiwaale seen i garab mhm. garab yaa nga fa defe naa dimanche bu di mhm. neexee yàlla dana dem réceptionné moom mhm. en tant que chef district garab yooyu garab yooyu muy loo xam ne ni commune bi jël na ko dugal ko ci biir màggalu Touba ngir jàppale santé bi ngir dañu gis ne ñoom jàmbaar lañ te li ëpp doole mooy wàllu wér-gu-yaram te gis nañ ne metti na màggal gi dana rëy moo waraloon ñu def contact yooyu ba yàlla dimbali ñu ak sénégalais yoo xam ne ñoo nekk ci extérieur ca Italie di ay doom euh, Touba jàppale ñu ci ba ñu am ak euh, relation médecin incha allah ñi ngi ci yoon wi al dimanche danañ ñëw garab yi sax jiitu si nañ jiitu si nañ agsi nañ récept war nañ ko réception voilà ni nga ko waxee muy ay doomu Touba di ay doomu Sénégal euh, am taxawaay bu rafet wax nañu sànq li nga xamante ni mooy wax nga ko ci wàllu santé comme si nga des ma ma këf foofu Euh, wax ne euh, yow adjoint au maire nga euh, dégg nga docteur bi li mu wax te ku wax jamono ji feebar bi ñuy wax mooy Ebola wax sensibilisation laaj bi moom mooy est-ce que tey jii mën nga ñu tënkal melokaanu sa population est-ce que Touba bi nga ñi nga jiite ñu neex waxtaanal lañu ndax daañu bàyyi xeel ci li nga xamante ni moo leen di yoot ndax daañu nangu ndigal li nga xamante ni moo leen di aar war a aar it li nga xamante ni moom mooy réew mi ci wàllu feebar boobu s jërëjëf. loolu ni ma ci wax rek mooy Touba moom. Mhm. wax nga ko tënk ko ndigal. Mhm. baatu ndigal daanaka mooy baat bi nga xam ne moo ñuy dugal ci lépp lu ñu war a def. Mhm. Euh, loo ci gis lu ne rek bu ndigal ñëwee rek am na changement bu rëy boo xam ne ni moo ci am. waral na bi feebar bi jógee. ñi ngi remercier ni ma ko waxee docteur. moom ak ñun ci collaboration bu ne def nañ ay réunions réunion au niveau de la commune. ngir naka la ñuy waajalee feebar boobu. defe naa ne dispositif yi ñu ci war a jël yëpp jël nañ ko ñun ak médecin district bi. dem nañ ba ci camp bi nga xam ne moom la ñu war a recevoir defar ko préparer ko waajal ko sax. dem nañ ba wan ko ko. defar ko préparer ko ngir dem la ca laaj itam wàllum kii tamit defal nañu ko lam ca war a soxla ba lépp pare nañ ko. ndax moom bi mu amee dafa daal di jokkoo ak le maire Abdou Lahad Ka mu jokkoo ak ki nga xam ne moo yor de santé bi di El Hadj Mame Mbaye Niang ñu daje toog waxtaan. bi ñu waxtaanee ñu xool ne feebar bi feebar la boo xam ne mi ngi law di ñëw mhm. ca Touba kenn ku ne xam ne ne Touba bunt la mhm. ndax fu nekk la nit di jógee di ci dugg ci contrôle bi war defut fu ne la nit di jógee marché jawbe baa ngi fi lu ne ngi fi loolu moo war a médecin district bi teel a jóg mhm. moom ak ay bokkam yi nga xam ne ñoo wàllu jor wàllu médecine bi tee a ñëw adressé au niveau du commune pour wax que naka lañ war a waajale feebar boobu biñ ñu ko waxee ñu itam ñu ànd ci ak ñoom def ci ay réunion def ci réunion réunion ba tëral ba fexe ba nga xam ne daal yaakaar naa ne fii ne boo la ne woon salaamaaleykum. yaakaar naa ñu ne ko maaleykum salaam. maaleykum salaam voilà ñu ngi koy ñaan en tout cas <laughs> muy dalal xel yi ñu gën a euh, tranquille ci li nga xamante ni moom mooy feebar bu bon boobule. Euh, yàlla fi sore génn si àdduna bi euh, damay ñëwaat si yow sëriñ Mbacke wax nga sànq wax bu am solo nee nga yow culture doo ko tënkee aada danga nga koy tëggee tënkee xam-xam nga delluwaat xamal nañu ren ji Euh, Serigne Touba ak alxuraan moom la ñuy euh, fas yéene waxtaane ci conférence bu mag bi euh, ñi nga xamante ne ñooy sàkku xam-xam wala jëriñoo li nga xamante ni moom mooy Serigne Touba doo ko fi buñ ko naree waxtaanee fii duñ fi <laughs> duñ si duñ si jógee waaye buñ ko àndee ci li nga xamante ni moom moo jëm ci biir réew mi lu weesu ñi nga xamante ni moom la ñoom la seen xam-xam màcc parce que bu ñu la toppee déglu lu baax mooy gaa ñi dañuy jógee fële ay borom xam-xam ñëw daanaka di tànk si li nga xamante ni moom la fi sëñ Touba euh, bàyyi euh, bu fekkee dafa lëkkaloo ak alxuraan si at bi euh, Sénégal soxla ko ndax alxuraan moom mooy defar mooy raxas ñoom lu bari lu ñuy gàllankoor lu bari ci réew mi commission boobu bu màggal bi jeexee lan la si war a mën a jukki pour bu borom xam-xam yi ñëwee jël li leen neex ñun am nañ ko fi ba pare lan lañ ko war a mën a jëriñoo suñu réew ci wàllu xale yi ci wàllu jigéen ñi ak fépp fu mu mënti doon. waaw xam nga. ñun bu ñu jëlee tomb Serigne Touba xam-xam dañu bëgg a wone taxawaay bi sëriñ bi amoon ci wàllu boobu maanaam taxawaay bu rëy rëy la boo xam ne jeexit bari la am ay yu yéeme it xew na ci loxoom ci xam-xam ci ci alxuraan yooyu yëpp nag lañ bëgg a sulli wan ko nit ñi ndax am na ci ñooñu ay këri diine lañ ñàkkut ñoom itam seen i kë seen i këri kilifa. lu mel noonu di fi xew. waaye nañ wane li sëriñ bi def keneen wane la kilifa koo ko def. réew mi ndax alal la réew mi. loolu ndono la joo xam ne réew mi ko war a ko waxee woon ne ñëpp ko bokk. léegi dëkkub ñëpp la ay naka jekk dëkkub ñëpp la woon. ba di sos ngir jullit ñi la woon. képp ku bëgg gindi ku bëgg a tegu ci yoon. sëriñ bi sa barab la la la wutal na la fi barab. jàpp na ne fii sa barab kon bu ñu waxtaanee loolu ñun liñ ciy bëgg rek mooy keneen ku ne. ku ko amoon. gën koo xam ne jar na jàpp. ndax sëriñ bi ko jàppoon am na ci ay meññet. yoo xam ne mi ngi nii daj daj. coow lu bari li am ci jàngum alxuraan ak daara yee yooyu yëpp war nañ ko weesu bu yàgg. ndax sëriñ Tuubaa tegoon na loo xam ne buñ ci jaaroon weesu nañ ko. loolu nañ ko bëgg a wane. sampoon na daara joo xam ne jàng rek lañ fa doon def. sëñ daara ba fa nekk jàngale képp lay def amul leen lu koy def loo danañ ko yar jàngal ko ba su noppee nag leneen lu muy def mu def ak nag yeneen yu bari yoo xam ne meññe di moo tasaaro ci dëkk bi tey boo duggoon jéem a def li nekk ci dëkk bi ci ñu wattu alxuraanul karim xale yu ko mokkal ci seen dënn mhm. mën a toog di ko tari duñ ko xool mhm. ay junni yu bari la mhm. waaye ci benn télévision wala rajo doo ko dégg ñu wax te Sénégal la bari na lu ma wax Touba Touba da cee raw laa jàpp waaye bari na ci réew mi fi mu amee lu mel liñ fi bind ay kaamil ci alxuraan nga xam ne mbindu loxo la ab xale koy ci loolu waa rabitatul madarisul xuraan ñi nga xam ne daa dajale daara yi ne ci dëkk bi bootaay gu mag la waaye ñi ci féete Touba bi ñuy tëj colloque bi fii bind nañ fi ab kaamil alxuraan ci benn bis seen télévision bi génn na ko euh, sëñ Mbacke man foofu laa bëggoon euh, nga nga euh, ci wàllu wasaare bi ni nga ko waxee mooy du fi jeex ay téeméeri téeméer téeméer waaye nit ñi xamee wuñ ko noonu te jëriñoo wuñ ko euh, noonu est-ce que desul tamit ndax jamono moo changé euh, nu mu taxawee moo changé est-ce que warul am communication boo xam day appuyer day jàppale. Euh, li fi nekk euh, wasaare ko finalement. waaw xam nga dafa mel ne nag. Mhm. tasukatu xabaar yi nga baal ma waaye. Euh. <laughs> daa am lu ñu jàpp xabaar bu <laughs> waxal loo neex fii fii la waxal <laughs> loo neex am a war na fi ci lii dañ ko war a jëli. Mhm. yoo xam ne kenn du leen ko jox yéen koy jëli. Mhm. waaye tey bu amoon ku tànn seen daw mu ñëw ne dama bëgg rek def recensement. daara yi alxuraan yi ñan ñaata nit ñoo mokkal alxuraan ci dëkk bi. dana gis lu yéeme. waaye est war leen ko boole ci seen am politique de communication. boo xam ne ci misaal. at mu jot fii. yaakaar naa gaaw lay doon wala dibéer jii di ñëw. danañ organiser ab concours alxuraanul karim ay gone yoo xam ne dañuy tànn ñu wattu alxuraan ñu leen tariloo. ak concours xam-xam. boo xam ne ci laaj yi xam-xam yi. ci diine. ci wàllu culture générale. ak ci wàllu wàllu wàllu ci Sëriñ Tuubaa dëkk bee yooyu. gone yi ci gën a ràññeeku dañuy joxe neexal. ñeenti at a ngi ni at mu jël ñu di ko organiser mais daanaka ñi koy teg du bari te danañ invité mboolem télévision yi rajo yëpp mhm. kon dafa mel ne ñi ngi def a jéego waaye jàpp naa ne ñoom itam uh-huh, uh-huh. nañ jàpp ci diine ji ci uh-huh. lii diine rafet la ñu génne ko voilà def naa ñoo ko déggandoo kooku moom mooy <laughs> moom mooy nganale bi <laughs> euh, pour la presse Serigne euh, Mbacké à euh, nos confrères dégg ngeen alors docteur damay ñëwaat si yow bu ma paree ci docteur Serigne Mbacké Euh, ci wàll li nga xamante ni mooy euh, mooy feebar bi hmm? li ñuy wax ci wàllu feebar donte euh, Sénégal alhamdulilah rabbi alamin ba léegi ñëpp xam nañ fi ñu ci toll waaye xam nga ñun la si suñu biir <laughs> c'est nu dans nous comme on dit sénégalais Touba ñëpp a ngi fi xaar nit ñu bari car macha allah ci seen subconscient ci seen psychologie fu ñu dajee feebar bi est-ce que am na lu ñu préparé. hein, pour neutraliser déjà toute suspicion buy jëm dans ce sens parce que day nekk convergence ñëpp a fi daje ci ci jëm ci Ebola sur le plan de la communication est-ce que am na benn sensibilisation spécifique pour loolu éventuellement. c'est ça donc euh, organiser nañ comme ni ma ko waxee. Mhm. Euh, ay activités de sensibilisation. Mhm. yoo xam ne liñ ci privilégié woon. Mhm. mooy li ñu gën a def mooy sensibilisation de proximité. mooy def porte à porte dañu former ay relais. Mhm. ay relais communautaire euh, yóbbu leen ci biir gox yi. Mhm. ñu dugg kër par kër di sensibiliser population yi. Mhm. def nañu aussi ay activités de mobilisation sociale. maanaam organiser ay manifestations yu mag ci quartier yoo xam ne dafay polariser ay nit yu bëri. Euh, def nañ ay émissions rajo. sur la maladie pour sensibiliser fexe toucher. Euh, largement la population de Touba et au-delà. Mm-hmm. Euh, def nañ ay caravanes ay caravanes de sensibilisation. Mm-hmm. Euh, avec l'appui du ministère de la santé mais surtout aussi avec l'appui des partenaires. Mm-hmm. maanaam ay partenaires yu ñu jàppale. ba léegi nii ñu ngi dérouler ay activités dans le cadre de la prévention de cette maladie de de la maladie à virus Ebola. Euh, loolu doyul tàggat nañ secteur yëpp. muy gendarmerie police sapeur pompier ak service d'hygiène ñëpp tàggat nañ leen pour ñu xam feebar bi xam nan lañ muy aborder nit ñi dans le cadre de la lutte contre cette maladie euh, dans le cadre de la prévention aussi fexe nañ ba ériger benn site d'isolement boo xam ne dañ ci liggéey ak ministère ak kuréel yi nga xam ne ak mairie bi site boo xam ne Euh, euh, dispositif bi ñu teg suñu nemmeekoo benn cas boo xam ne dañu gis ci moom ay signes. Mhm. dañ koy isolé aussitôt. Mhm. maanaam dañ koy ber. dañ koy ber isolé mooy ber ci tubaab waaw isolé mooy ber ci <laughs> euh, am nañ ay équipes yoo xam ne dañ leen doté en thermoflash. Mhm. et en équipement de protection individuelle. mooy équipe yi nga xam ne dañuy sillonner dëkk bi parce que. Euh, pour lutter contre ébola mhm. il faut nit ñi xam d'abord que Ebola amul Sénégal. Mhm. dañuy ragal li fi amoon muy cas importé. Mhm. ñu am lu demee noonu. loolu en plus de tout ce que l'État fait spécifiquement fii ci Touba. liggéey bi ñu fiy def mooy surtout sensibiliser parce que ébola amu fi. donc li nga mën mooy yee nit ñi ñu xam. yee nañ nit ñi aussi ci ku am gan mu am yaram bu tàng. Mhm. ndax ébola ñëpp xam nañ ne signe bi ci jiitu. Mhm. mooy yaram buy tàng. Mhm. ndax li ci topp yëpp ay hémorrages yi ay wàccu lool yëpp. yaram bi dina tàng ay fan lool soog a ñëw. mais signe bi ci jiitu mooy yaram bi tàng moo tax ñu koy wax fièvre à virus Ebola. donc yaram bu tàng boobu mooy premier signe bi donc yee nañ ci nit ñi. ku nekk ak nit mu am. fièvre boobu boobu nag laa bëggoon ñu ñu euh, parce que. nee nga premier signe bi moom mooy yaram bu tàng xam nga tamit sénégalais yenn saa dañuy xaw a euh, xaw ma nu ñu koy waxee pour mu bañ a euh, xaw a ëppal yenn saa yi nit mun a voyager moom tàng mun na nekk euh, paludisme wala beneen loo xam ne amul benn relation ak ébola ñu jagar jagar la wala yu <laughs> yóbbu la. waaw loolu naka ngeen koy anticiper un peu. même même su dee palu sax. Mhm. li ñuy ñaan nit ñi mooy ñu consulter précocement. ndax si buru aussi soo weeyaaleeg moom mën na la indil ay gàllankoor. Mhm. donc li ñuy yee nit ñi mooy ku yaramam tàng. Mhm. mu daw gaaw ci bërëbu fajukaay. ñu seet ko xam li ko dal ñu mën ko taxawu. ndax su dee si buru am na léegi ay test rapide ñuy wax TDR. yoo xam ne sa yaram su tàngee soo ñëwee rek. mën nañ ko saytu xam ndax da nga sibbiru wala déet. Mhm. su dul sibbiru itam ñu gëstu yeneen i feebar. te loolu tàggat nañ ci ñi ñuy liggéeyandool ba ku ci nekk xam nga yoon wi ngay jaar. Mhm. ba pare li ñu ci def ci sensibilisation. Mhm. dañ ci boole teg un réseau de surveillance épidémiologique. mooy euh, saytu boo xam ne ñu ngi koy saytu gox bi. ci feebar yi mu war a mën a survenir. loolu dañ koy def même su màggal amul. waaye fan yi dañ ko gën a renforcer. maanaam lépp loo xam ne rek feebar la boo xam ne mbooloo ci mbooloo mën na wasaaroo. Mhm. ñu koy wax maladie à potentiel épidémique. Mhm. loolu dañ koy saytu ci biir màggal. Mhm. ak su màggal dee jub si. Touba d'habitude sax su dul màggal sax dañuy taxaw ci lool di ko saytu. ndax dëkk la boo xam ne euh, ak population bi fi nekk. su fekkoon ni dañ ko saytuwul bu baax dara mën na fi dugg indi fi jëyee te duñ ko yëg. mais li tax dara du fi dugg te yëguñ ko mooy dañu tàggat ay nit ñuy liggéey ci loolu bés bu jot ñu daje waxtaan ci loolu mhm. jël ci ay matukaay mhm. donc ci wàllu màggal gi sensibilisation bi def nañ ci loo xam ne daanaka mosuñ ko def ci màggal yi weesu mhm. ndax contexte bi ñu nekk euh, def nañ ay sensibilisation yoo xam ne ànd nañ ci ak kuréel yi nga xam ne moom la ñuy wax OCB mooy organisation à base communautaire nga xam population yi ci seen bopp ñoo takku jël en charge seen wér-gu-yaram mhm. service de santé yi accompagner leen te loolu mooy tax ñoom ñu approprier wu message yi nga xam ne moom la ñuy joxe mhm. tey jii gox boo ci dem am na ay OCB yoo xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom ci yee nit ñi ci wàllu feebar bi mhm. yee bi nag mooy surtout yee nit ñi ci wàllu Ebola mais surtout maladie jaare ji mhm. mooy feebar yi nga xam ne mooy feebaru biir daw daweeg yooyu mhm. ndax loolu dañ daan gis léeg-léeg màggal feebar yooyu mënoon na ci juddu léeg-léeg ba tax sensibilisation bi ñu def yemale ko ci Ebola rek mhm. sensibiliser nañ ci wàllu feebaru biir yiy daw pour mu bañ a am ci màggal bi sensibiliser nañ aussi ci maladie yi ñuy wax maladie chronique su màggal jub see wala ci biir màggal gi léeg-léeg borom tension yi seen tension da leen di daaneel ak jabet ñi amee jabet léeg-léeg seen jabet day yëngu daaneel leen wala asthme ak poussière bi am loolu yëpp sensibiliser nañ ci nit ñi li ñuy fàttali rek mooy ñi nga xam ne dañuy ñëw yor feebar boo xam ne xëy na dañ ko daan faj ku ciy ñëw ñu ngi lay ñaan nga respecter prescription bi la sa docteur defal. da nga fexe ba indi say garab. di ko jël ba ba ngay delluwaat. ak sa ordonnance ak sa ordonnance. Mhm. nga koy jël ba ba ngay delluwaat te soo delloo nga wéy di ko jël. Mhm. ba àpp bi jot nga dellu ci sa docteur. Mhm. su dee ci wàllu ñi nekk ci dëkk bi. defe naa am na message yoo xam ne ñu ngi continuer di ko diffuser. dinañ continuer di ci liggéey ba màggal gi weesu. am na yu ñu prévoir. mooy def caravane sillonné dëkk bi. Euh, defaat ay émission ci quarante huit heures avant le màggal. émission yoo xam ne dañ ci gën a yee nit ñi. loolu nag ànd nañ ci ak mairie bi maa ngi profité di leen sant bu baax. di mhm. remercier monsieur le maire. monsieur le maire waaye di remercier El Hadj ko fi toogal. Mhm. Euh, ànd ci aussi. ak kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci région bi. di ñu jàppale te mhm. médecin chef de région bi jiite leen. Mhm. muy EPS régional bi nga xam dafa am message yoo xam ne dañ koy diffuser à l'échelle régional mhm. ak à léchel nationale. ñu à l'échelle nationale ñu ngi koy waxtaan ak li ñuy wax SNEIPS. E mooy service bi yor affaire information ak éducation pour la santé. au niveau du ministère. parce que màggal gi. sensibilisation bi yemul rek ci ñi dëkk Touba. ndax day am aussi ñuy jóge ci yeneeni gox di ñëw di màggal si loolu sensibilisation boobu ministère mu ngi ciy liggéey ak waa SNEIPS au niveau de la région aussi bureau régional de l'éducation pour la santé mu ngi ciy liggéey su la supervision du médecin chef de région fii ci biir Touba aussi man maa ngi ciy liggéey ak samay équipe di ci liggéey ak communauté bi yëpp di ci liggéey ak mairie bi ak autorité administrative yi ak autorité religieuse yi mhm. maa ngi profité di sant bu baax autorité religieuse yi mhm. ndax jàppale nañ ñu bu baax a baax ci man foofu laa bëggoon rebondir parce que euh, monsieur le maire nee na loolu moo tënk mouridisme maanaam ndigal euh, yow docteur nga euh, docteur Dieng est-ce que lu weesu ndigal bi est-ce que neex nañoo gérer neex nañoo tàggat ci ci moytu ci wàll wér-gu-yaram bi rawatina ci màggal bi ak ci li ñu jëm ak nu mu euh, spécialisé cette fois-ci. ku ko xam. xam ne maanaam ndigal boobu dafa am fonction yoo xam ne. ñun dañ koy utiliser mu yombal suñu liggéey. ndax fi mu toll soo bëggee sensibiliser. tout un soo demee ci quartier bi am na kilifa ci wàllu diine bu fa nekk. nank quartier bi yëpp am ay lieutenant yu ñuy wax ay jëwrin mm-hmm. nga xam ne moom. loo waxtaan ak moom ba sensibiliser ko def le plaidoyer ba mu ànd ci ak yow. loolu mën nga sax dem ñibbi tëdd te jàpp ne. mooy nekk sa mooy nekk sa relais. waaw moom day joxe day joxe ndigal. Mhm. ndigal li jaar ci jëwrin yi. Mhm. jëwrin yi àggale ko ci taalibe yi. Mhm. te ndigal moom jëfe rek. fii moom loolu moo ñu yombal liggéey ci wàllu sensibilisation le tissu communautaire et bien organisé. et bien structuré et même hiérarchisé. maanaam dafa am ay échelle ay mm-hmm. échelon mm-hmm. li li li am solo rek mooy nga xam fi ngay jaare mm-hmm. ak ki nga war a waxal ndax soo ko tëbee wax ak koo warta waxal mën na am une adversité ci message yi mën na am la nga doon jublu xëy na doo ko ci am ndax ka nga waroon jaar ba leeralal ko muy mën a joxe ndigal soo ko fa bàyyee wax ak koo xam ne xëy na maanaam du moom mooy joxe ndigal li mën na indi ay jafe-jafe ci biir message yi nga mën a jàllale waaye soo xamee buntu bi nga war a jaar xam ci ki nga war a jaar wax ak moom soo waxee moom la nga bëgg dina àgg ca nga bëgg dina dem ba ca ñi nga xam ne ñoom nga bëgg mu àgg ci ñoom vraiment ñun ñu ngi sant bu baax ci wàll woowu ndax kilifa yi ñu fi nekkal kilifa yu neex a dëkkal lañ ñu neex a mm-hmm. suñuy kilifa lañ mm-hmm. lépp lu ñu war ko def. Mhm. liñ ciy jiital mooy dem waxtaan ci ak ñoom. seen sëriñ lañu seen kilifa lañu. seen i ay partenaires lañu. c'est ah, ah, en même temps en même temps c'est une chance monsieur le maire. Euh, foofu la ñu këfee ñëw si yow wax euh, euh, c'est vrai que préfet bi wala sous-préfet war na fi nekk waaye li ko tënk xam nañ ko laataa may ñëw si question boobu dama lay laaj tey jii ci wàllu maire bi lan ngeen daan faral di am problème loo xam ne daan nekk jafe-jafe donte xam nga màggal moom dayo bi mooy ni mu mel. waaye organiser li ñu mel dafa xaw a jafe dina am yenn saa ay rëq-rëq yu sew wala leen lu manqué euh, lan ngeen daal faral di dund si jafe-jafe par exemple tey nga xam ne ren ji loolu tey ngeen ci seen loxo amatul wala weesu ngeen ko. waaw ci li mën a jàpp. mën a jàpp mooy. Mhm. màggal moom. Mhm. màggal la comme ni nga ko waxee. Mhm. événement la boo xam ne bu rëy la. ku ko organiser ku ne ba mu jàll jàmbaram. mais yàlla li ñu dimbalee dañu lënkaloo ak comité d'organisation. xam mm-hmm. màggal gi dafa nekkul ci loxoy mairie bi. Mm-hmm. nekkut ci loxoy commune bi dafa nekk ci beneen euh, kuréel gu ko yor. Mm-hmm. muy comité d'organisation màggal. comité boobu ak mairie bi ñoom ñoo ko bokk ànd. ñaar nag bu ñu bokkee lenn day woyof. woyof gi mooy diis ci ñun mësu koo def. ndax ni ma koy waxee mbir mi mbirum Serigne Touba la. Mhm. Serigne Touba mbiram moo ko yoral boppam. ba tax na liñ fi nekk lépp liñ mës a dund ci màggal gi rek du lenn lu may jafe-jafe yi xanaa mooy ndox. ndox ngir ndox mi mooy lan askan wi la. Mhm. Euh, ñi fi nekk nit ñi ñëw manque ndox wala ñu def dara loolu bu mhm. boobaa ñun ñi nga xam ne ñoo jabote askan wi. loolu dana nekk lu metti ci ñun. ba loolu moo waral ren bi euh, état Sénégal jëlee. ay moyens. Mm-hmm. dugalaat ko ci fekk ak ñi nga xam ne ñoo yor ndox mi man ñi ma wax léegi muy maa u ma ñëw ñu itam ñu participer ci. Mm-hmm. jàppale leen ba fi ñu toll nii léegi rek ci déclaration Serigne Bass bi. Mm-hmm. mi ngi wax ne actuellement tiwo yi sax li ci ëpp mu ngi toj ngir ndox mu bëri te loolu mosuñ koo dund. maanaam tuyaux yi dañoo fees ndox ba ma ña ngay toj commencé daanaka <laughs> foo di fit yaa ngi am uh-huh. te loolu euh, daanañ jàpp ne ñàkk ndox lañ daan gën a séentu ci heure bi ka am ko Mm-hmm. kon loolu mu mel ne jafe-jafe la woon boo xam ne amoon na waaye suñu borom saafara na mm-hmm. beneen jafe-jafe bu fi am nag mooy li ma la wax amu fi mm-hmm. ndax nun ni ñuy nekk mooy diñ nekkee commune depuis bi nga xamee ne monsieur le maire Abdou Lahad Ka na fi yitteem ak léppam mooy fexe ba màggal gi lim ci war a def mu def ko ci mu réussir jàppale comité bi jàppale ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci mag ba nga xam ne amul lenn loo xam ne nii gis nañ ne commité bi war na ko euh, commune bi war na koo def mhm. ci defu ko mhm. lu mu ci defu rek lu mu yëgul mhm. mais lépp loo xam ne yëg nañ ko ñu ngi koy def jafe-jafe mooy li ci gën a sigi mooy nit ñi nga xam ne dañoo ñëw kenn ku ne xam na ne Touba ni mu mel ak ñiy ñëw ngir màggal di wut si lu ñu am jafe-jafe bu doon am tey jaaykat yi wala nangam yi ñu am taxi yu ñu leen teg yoo xam ne nii dana métti ci ñoom waaye nun duñ loolu lépp woyofal ko ngir jëmi sëñ Tuubaa ak ci ñu tax moo tax taxe bi taxe yi nga xam ne nañ leen ko waral luñ ci maanaam lu ne dañ koy dañ koy dañ koy mhm. am na ñoo xam ne sax duñ ko fay far mhm. kon loolu lépp muy ñoom ñooy fay ak ñoom fay baax na pour ñu xam ndax ñu ngi jëm si màggal bi te xam naa ne ñiy fay euh, commerçant moom fu mu gis mouvement <laughs> dafay loolu ma ci bëgg a wax li ma la ci bëgg a leeral <laughs> uh-huh. moo di ne tey boo doon publicité moo xam nga yow wàllu publicité ni mu cher. Mhm. seen télé bii tey boo fi def publicité. <laughs> ah non TFM nag cherul TFM màggal nga jëm si mu wër na ne Touba boo ñëwee yaa ngi yoor lii yaa ngi ci war a fay loo xam ne ni mat na temps nga ñëw ñu daggal la ko ba yow mii fay da ngay xam ni wax dëgg yàlla lii day ndimbal dugg na ci mhm. te da ngay xam ne it fii nga ko amee mhm. li ëpp kenn du ci fay ni ci fay mooy li ëpp ci mbaar yi ngay romb yi ngay romb yow dugg nga Touba biir màggal mhm. li ci ëpp du ñu fay ah du ñu fay lu ñu amoon waaye nag fi mu ne ren nag fi mu ne bëgg nañ ñu fay ndax boobu it commune rurale la ñu woon am na yu ñu daan masla mhm. teg-teg yi ñuy askan wi daan teg da daan tuuti léegi nag dañ ne commune lañ mhm. bu ñu daan teg juróom fukk lañ ñuy teg wala ñaar fukk mhm. kon nag lay tax ñu teg ñu ba loolee askan wi ñu teg ñu fa yéene ko remplir matal ko il faut que mu jóge waat ci population la ci ñi nga xam ne ñoo war a fay ay taxes moo tax may lancé waale message ñu xam ne nag li nu yenu fi mu toll nii mhm. képp kuñ ci ñëwaat yow ne la joxeel tuut si sax nga xam ne mhm. da ngay mhm. dimbale waale commune bi ngir bu ëllëgee boo ne lampe bi lakk na commune bi gaaw man koo def ndax dañ koo tàmmute woon def te euh, jamono dox comme ñu ko waxee rek jamono moo dox ba xëy na dara war la cee fekk voilà yow noo yaakaar nan lañ koy accueillir est-ce que ko nangu facilement ndax lu ñu xamul la woon te lu bees lay doon si ñoom xëy na waaw loolu sant yàlla di uh-huh. sant itam euh, ni uh-huh. waxee population bi uh-huh. waaw moom ni ma wax mooy ñàkk xam mais lu ñu xam rek jëf ca wax dëgg yàlla fi ñu toll nii mhm. bi ñu demee xam nañ ko mhm. ndax xam nañ ne léegi da nga soxla làmp kenn ku ne xam na ne fii mu ne euh, fay courant beeg defar làmp bu lakk ak lépp mhm. maire yi ñoo koy def loolu xam nga ne gox bi nga dëkk bu làmp yi lakkee nga ni ñëw defal ma defal ma ko ka koy defar xam nga ne da koo jëndi da koo jëndi loolu ci ci askan wi rek la jógee hmm. jógewut ci poosu monsieur le maire Abdou Lahad Ka jógewut hmm. ci adjoint Alaaji Fallou Ndiaye jógewut ci kenn hmm. ci askan wi la jóge muy li ñu jëloon joxe ko ah. ñu soxla ko ñu delloo leen ko tëlib soxla na fii quartier bi soxla na ndox quartier bi soxla na dispensaire parce que ñun bi ñu nekk commune rek bi ñu nekk eh, eh, communauté rurale rek def tabax nañ quatre postes de santé defe naa ne benn commune ci Sénégal bu commencé tabax amul équipé ko docteur xam naa ne mi ngi ci ensuite ñi wuti Europe ay partenaire mhm. yaakaar naa ne bu yàgg am na jamono yoo xam ne indi nañ fi conteneur boo xam ne xam nga ñun lu ñu indi rek ci loxoom la ñuy teg mhm. ay lal ay lu ne loolu lépp ñu wuti ko ci commune bi moo ko sàkku ji woon mhm. te loolu lépp askan wi lañ koy delloo loolee nag la ko indi la ko def lépp mooy waral nag léegi bu ñu soxlaa leneen ak lu ñu mën il faut nag as tuut di dugg ci gafaki gi gafake gi di mën a génnee di <laughs> voilà monsieur le maire yaa ngi wax si tamit yaa ngi wax TFM waaye yow wax si koppar yi alors euh, euh, beneen bi mooy bi nga waxee léegi dañu def si yow ah. Euh, da nga xaw a taxaw tuuti ci xëy na euh, euh, ñi nga xamante ni ñooy waa Touba spécialement mais comme dañ nekk si màggal ñu bëri dañuy jógee feneen ñëw di yëngu ci wàllu njënd ak njaay xëy na tamit ñoom war nañu soxla ñu yee leen ci lu ay yees yees wala yeesal luñ koy waxee wala ay coppite yu bees yoo xam ne dafa wute ak population yi nga xamante ni ñoom ñoo baaxoo fii ñoom fi la ñu yëngatoo toujours. waaw loolu mooy dëgg. Mhm. ndax am na ñu daan fay bu njëkk. peut-être lañ daan fay demewutoon noonu mën na am ren bi ñu ñëwee mhm. yokk nañ ko mhm. waaye ñoom it ñu xam ne comme ni ma la ko waxee rek euh, fi ñu toll léegi mhm. moo waral mu yokk mais yokk gi du dara par rapport ak soo demee ci yeneen dëkk yi wala dara la nga fa war a fay soo ñëwee Touba euh, da nga xam ne Touba moom mairie Touba wàññil na la euh, loolu kenn ku nekk xam na ko ñii ñëw itam ñu ci bëri ñu ngi koy yëg ku ko ci yëgul itam nga xam ne boo ñëwee lépp luñ la laaj ci bunt bi mhm. ne la def ko jàppe ko addiye jooy joxe rek dëkk bi mhm. muy sa participation muy sa addiye muy sa addiye <laughs> jërëjëf jërëjëf monsieur le maire Serigne euh, Mbacké euh, nu ñu war si li nga xamante ni moom mooy sa si li nga yëngu sous commission organisation bi yor wàllu wàllu culture euh, may bamtuwaat man dama dama daanu ci tënk bi parce que ne culture nee nga du aada xam-xam la alors nga wax it tomb yi nga xamante ne ci ngeen war a Euh, jëm incha allah ah sëñ Touba ak euh, ak alxuraan. Euh, waaye ñu xam ne dañ nekk si àdduna boo xamante ni lu weesu xam-xam ak cosaan ak diine am na it li nga xam ne moom mooy wàllu koom-koom dund. te bu fekkee ne da nga mel ni ñenn ñi da wax ne lépp li nga xamante ni yokkul sama koom-koom xëy na yitteelu ma ndax àdduna xëy na am na côté yu bëri fa lañ toll tey jii. ci wàllu koom-koom ci culture bi fan yokkute la Sénégal parce que man yem Touba rek <laughs> du ma sax yem Sénégal damay génn sax Sénégal fan la ñu war a mën a jàppee ci loolu pour am ci koom-koom. waaw xam nga koom-koom moom meññet la war a doon. meññet bi taxawaayu diine la. diine buñ ko dundee niñ ko war a dundee rek koom-koom ñëw. ci naka ci ban fànn. ci lu ci nekk am na lu ci yàlla bëgg ñu doxee nii. Mm-hmm. suñ ko doxee jàmm am. Mm-hmm. suñu borom daa waxoon bu yàgg ne suuf yàqu na. Mm-hmm. waaye nit a ko yàq. nu mu ko yàqee mooy fàggu luñ ko fàggulawut. wala mu fàggoo ko ci anam guñ ko fàgguwut. zaharal fasadu fil barri wal bahri bi ma kasabat aydin naas. moo di ne jafe-jafe yi am yëpp ñoo ko ci suñu bopp. adduna jafe-jafe boo fi am rek doomu aadama ba yàlla yàllay defar adduna adduna ju jàkk joo xam ne li fi nekk doy na ngir nit ñi. yàlla ci mbaaxam ak xikmaam du indi ay nit ci àdduna te joxu leen fi lu ñu lekk. bu xiif amee. ñàkk maandu la wala ñàkk séddale séddale bu baaxul wala ñàkk liggéey. waaye bu nit ñi liggéeyee te maandu am ñu séddale gu aw yoon. kenn du xiif du nit. yàlla xikmaam ak mbaaxam weesu na. mu bind bindee ba noppi di ko seetaan muy loru. ci loo xam ne moo ko mën a jox tu joxu ko. nit ñi nag. moo tax ñun bu ñuy wax dañuy delloo ci ndey ji bu ñu fexee ba cosaan li baax rek la ciy judd lépp dana baax koom-koom mi ñuy wax nii bu ñu fexee woon ba diine dëgër ci réew mi xol ci nit ñi dund ko ci seen léwét yëpp duñ am jafe duñ amati jafe-jafe koom-koom ndax lan diine moo lay sant ngay jaamu yàlla te jaamu yàlla dafa yaatu mooy nga nekk ci lu yàlla bëgg ci lépp liggéey loo jariñe sa bopp ak sa njaboot ak ci biir ab jullit du toog di yàccaaral kon ku dund diine te xam ko da ngay dellu cooy moo tax Serigne Touba bi mu ñëwee jàngalee bi mhm. mën nañu wax ne ñetti wos ci ko taxawal mhm. xam-xam ak jëf mhm. ak teggi yoo xam ne ñett yooyu moo téye wooteeb sëriñ bi xam-xam bi ci jiitu mooy xam-xamu diine ak xam lépp lu am njëriñ nag da dugg jëf ji mooy amal jaamu yàllaa ngi ci biir liggéey ngir jariñ sa bopp ak sa njaboot a ci biir waaye liggéey ngi jëriñ jaam yàlla yi mi ngi ci biir. mooy solidarité. ëpp na solidarité wala gure li ñuy tuddee xidma. Mhm. xam nga solidarité weccoonte ay njëriñ la. Mhm. maanaam li ñuy wax. mooy dimbali loxoy kajoor day weccu la waaw dimbali nit tamit. sëriñ bi nag daa woote lu mhm. gën a kawe loolu. mooy yow da ngay dimbali nit ki te doo séenu ci moom dara. da nga koy dimbale ngir yàlla nga xam ne tuyaaba dañ koy séenu fa yàlla rek moo la ci ñor. bu la doon xas mbaa mu di la wax lu ne du tee ba nga dimbale am na ci ay waxam fu wax ne bu la nit ne indi tinewoo ko am nit jàkkaloo ne la indi jox ma nangam tinewoo ko am mhm. bokk na ci lim diggal taalibe yi laa tajaalan jawaaba haati xayra haat ndax lan yow boo jox jàmm bi yàlla nga jox jaare ko ci loxoom waa ji boo gëmee li nga def ni joxoo ko moom mhm. boo ko joxoon mu wëlbatiku mu saaga la wala mu xas la wala mu wax la leneen sa jëf du yàqu mhm. ndax xam nga ne ab jaamu yàlla la nga teg ci loxoom waaye yàlla ngay jox foofu bu fa nit kenn ku nekk gisee noonu kenn du sàcc kenn du tappale kenn du këppoo kees yi jàmbur yëpp day saafaraw waaye bu diine taxawut ku la wax ne la mën naa jubal nit ñi ci yeneen yoon wudul diine waxula lu wér diine képp moom mën a jubal nit yoon ndax lan nit dafa am lu ne ci biiram bamir li ñuy tuddee conséquence conscience sa conscience li ko mën a li ko mën a yee ba su bere woon tëju ci néeg gis alal jàmbur joo xam ne mën na koo sàcc lekk ko te du feeñ danaan su ma ko jëlee yàlla ngi may tiim di ma gis bis a ngi ñëw dana ma taaj taaj jaam yàlla yëpp ne ma bis sàngam waxtu sàngam yaa jëloon nangam kooku du jëli fi jàmbur waaye koo xam ne jàpp na ne pexe adduna yi boo fexee ba la jël ko lu kenn mënta la jënte lu neex jël kan moo fi mën a jële sàcc diini moo mën a yor adduna ndax yàlla moo bind nit ñi bind di yoon wi mu ne jaar leen ci rek ñu mën a jagal weneen yoon wuñ jaar dañuy sonal suñu bopp yii ñuy wax ci koom-koom di ko yëngu ci wàll yëpp ci politique. Mhm. buñ bëggee mu jag dañ koy wér ci diine. Mhm. Serigne Touba loolu la ñu mhm. luñ mën a wax nag. mën nañoo sonn ñàkk suñ alal. joxe lu dul jeex. waaye bu ñu wéeroon ci diine. sëñ Dieng mii li muy wax ci wér gu buñ tënk woon ci li ci diine santaane dañ noppalu lool. waaye ñàkk bàyyi xel diine ci seen lekk. ci seen i col. ci seen i jëflante. bokk na ci li tax ñu wéerati. ñu wéerati yooyu jàpp naa ne buñ ko xamee. buñ ko xamee ñun suñu liggéey ci wet googu la jëm. Uh-huh. fexe ba nit ñi xam ne nag diine la. moo tax tomb bu ne ci ci ci danañ ko jàngale danañ góorgóorlu it fas yéene tasaare mbindum sëriñ bi ci loolu ren téeréem bi ñuy wax masaalikul jinaan masaalikul jinaan nga xam ne mën nañoo wax ne mooy laltaayu woote bi ci la leeral yoonu taso wi mu sóobu lu ko lal ak lu ko mund téere boobu liggéey nañ ci liggéey bu rëy ci taxqiq ko dellu ci biir leeral ko liggéey ci liggéey boo xam ne incha allah ci màggal gi dana génn ñu ngi koy mool danañ ko génne mhm. jox ko kilifa yi gan yi fi ñëw danañ ko yóbbaale incha allah ak yeneen yu bari yoo xam ne it waxtaan yi muy wax ni mhm. du rek conférence bi moo fi am mhm. laata muy ñëw am na ay waxtaan yu def ci penc dëkk bi ngir këri diini yi fi nekk ay jàmbaar yu àndoon Serigne Touba danañ wut ay bis teral leen ko bu defee dem waxtaan fa waxtaan ak ñoom tànn benn tomb moom itam bu ñuy waajalee màggal gi wax ci nit ñi it ñu xam ne dëkk bi daal mhm. dëkkub diine la dëkkub diine la ku fi bëgg dund te am yiw mhm. mucc ci yi nekk mhm. fexeel ba fonk diine tënku ci jàmm rek ngay am xéewal gu ñuy séddale kenn dul ci ëppale leen lu fooy yëngalul diine mooy garantie bi mooy garantie bi mooy ci nag seen média yi ma bàyyi leen xel ku ci góorgóorlu ci diine ji fexe ba tasaare diine ji uh-huh. incha allah kanam ngay jëm média yi média yi waaw kon loolu je crois que directeurs yi dégg nañ ko euh, ak euh, patron de euh, jërëjëf sëñ sëñ Mbacke dañ ñëwaat si yow docteur Euh, lu mel nii boo amee euh, très souvent euh, maanaam Ebola moo xew c'est vrai moo xew parce que moo bet nit ñi ci la nit ñi di xalaat tey jii ñëpp ñuy focaliser seen si si si feebar boobule mais y a que Ebola tey xam nañ ne am na àdduna lañ fiy xaar par exemple est-ce que loolu du dem ba muur beneen liggéey boo xamante ne waroon na am lu weesu malade yi nga xamante ne c'est potentiellement épidémique waa c'est vrai que ébola bi comme urgence santé publique la. Mhm. Euh, yoon la ñu wax ci. focaliser yenn message yi ci ébola mais à côté ñu ngi liggéey aussi. ci yeneen feebar yi comme ni ma ko leeralee. Mhm. mooy les maladies chroniques. Mhm. notamment diabète ay hypertension. nga xam yooyu ci biir màggal ñu ko am léeg-léeg mën na leen daaneel. yooyu def nañ ci ay communication sensibiliser nañ ci aussi nit ñi. am na aussi yeneen yoo xam ne mooy traumatisme yi mhm. maanaam accident yi mhm. ak blessures yi mhm. notamment les accidents domestiques mooy nit ñi dagg ci kër yi ak yenn accident domestique yi nga xam su mbooloo dajee ak liggéey yi ñuy def ci biir kër yi léegi léegi nit mën na ci am blessure yooyu yëpp communiqué nañ bi communiqué nañ ba dajale même chauffeur yi ak regroupement transporteurs yi. Mhm. wax ak ñoom ci wàllu prévention accident yi. Mhm. bon affaire u Jakarta yi aussi on a fait le plaidoyer. Mhm. pour que biir màggal gi vraiment ñu bañ a circuler Jakarta yi parce que suñ biir liggéey gisoon nañ ne Jakarta yi dégâts yu bëri ñoo ko daan indi. alors dama dama bëggoon ñu taxaw foofu c'est important. parce que c'est mooy objet émission bi dañu bëgg le maximum de sénégalais comprendre wala yëg. li nga xamante ni mooy lu yees wala fi ñu war a jëm ci ci màggal bi parce que Jakarta dafa ànd ak Bayrem <laughs> à côté du màggal dans les régions xam nañ lu ñu war si histoire bi euh, dama bëgg nga bamtuwaat ko mu leer Jakarta yi du ñu daw wala dañuy daw. du ñu daw Jakarta yi. Mhm. Euh, dañ ko tere ci biir màggal gi <coughs> pardon donc euh, Jakarta yi jóge ci dëkk yi di ñëw déjà. Mhm. jël nañ disposition avec mhm. les forces de sécurité. pour que. ñu interdire ko mu circuler d'une région vers Touba. Mmh. quelle que soit la région. biir Touba aussi dañ ko tere. et am na arrêté bu ñuy génne boo xam ne te loolu ndigal la sëriñ bi moo joxe ndigal. Mhm. ndax ginnaaw biñ ko ko leeralee xamal ko li nga xam ne moom lay indi ci ay loraange ci biir askan wi ak ci biir màggal gi. Mhm. mu joxe ndigal tere loolu. Mhm. kon force de l'ordre yi. autorité administrative yi jël nañ disposition yi ci war yëpp mhm. pour bañ jakarta yi circuler durant le màggal ndax accident yu bëri dañ daan gis ne ñoom dañ ci am wall loolu dañ ko def pour protéger population yi mhm. defuñ ko gratuitement mhm. dañ ko def vraiment pour mettre à l'abri des populations yenn problème yi muy accident yi charrette yi aussi doon nañ gis muy am ay accident de charrette yoo xam ne parfois day am même ay amputation ndax charrette yu daje. rombante nit ñi langal seen tànk ay blessures yu grave ñoo ci doon am. loolu aussi communiquer nañ ci waxtaan nañ ci ak nit ñi. te it yi dañuy réglementé fi ñuy jaar. ñu bañ a dugg ci biir population kon su dee ci wàllu daral yi aussi kon euh, Jakarta dañ ko interdire. dañ ko interdire charrette euh, dafa am fu ñu koy nangu. dafa am fu ñu koy nangu ak fu ñu koy bañ. voilà euh, am na aussi wàllu foraay yi. Mhm. mooy troupeau yi ñu daan jël. su nit ñi nekkee ci dëkk bi ñu jël mbooloo mi nekk ci biir dëkk bi ñu jël troupeau. Mhm. maanaam ab géttu nag. Mhm. dugal ko ci biir nit ñi muy am ay encore encornage maanaam ay nit ñu nag mbëkk wala gaañ leen. Mhm. loolu liggéey nañ ci ak mairie bi ba at yi weesu toxal nañ foraay yi. maanaam daral yi. toxal nañ leen ci peggu dëkk bi. maanaam am na daral bu nekkee fële ci kër kàbbu. ak daral bu nekk ci entrée bi nga xam ne mooy jóge Daara Jolof. loolu aussi tax na. accident yu bëri daan am ci loolu. fexe nañ ba mu deñ kon ñu ngi communiquer bu baax ci kii bi mais liñ gënoon bëgg a communiquer aussi mooy. d'abord dispositif bi ñu mettre en place. gratuité la maanaam loolu ministère de la santé. amul fay amul fay. amul fay uh-huh. ku feebar point de prestation boo dem maanaam bërëbu fajukaay boo dem. Uh-huh. ci lu jiitu màggal gi bésu màggal gi ak ñaari fan après màggal gi. Mhm. doo fay dara ci seet bi ñu lay seet. Mhm. soo waree def analyse aussi dañ la koy defal gratuitement. Mhm. soo waree def rajo aussi dañ la koy defal gratuitement. waaye nag docteur bi mooy seet ba xam ni da nga war a def rajo mu defal la ko. pour ñu bañ nit jóg ne dama ñëw def si rajo. wala dama ñëw def si analyse. ndax analyse ak rajo. docteur bi lay seet mooy seet ndax war nga def analyse wala ndax war nga def rajo. ndax am na ci ñoo xam ne. maanaam dañuy toog ba ci yàgg rek ñu ne damay dem hôpital def ji rajo ndax ci jamonoy màggal lañ nekk. ma bëgg a xamle ne rajo yi ak analyse yi. Mm-hmm. dañ koy jagale ñi nga xam ne seen yaram dafa sutante. Mm-hmm. te ñu yelloo loolu. Mm-hmm. maanaam ah, donte su dee kenn du ci fay docteur am na ñoo xamante ne dañuy xaar ba màggal bi ñëw par exemple ñu jóge feneen ñëw spécialement pour. béni jëriñoo li nga xamante ne moom lañ fi teg. waaw loolu bari na sax. waaye loolu ñun bañuñu ko. Mhm. ndax màggal gi. ay xéwal màggal bi xéwal képp ku ñëw dinañ la taxaw <laughs> li may wax rek mooy. Uh-huh. wàllu rajo yi analyse yi ak yu demee noonu. ndax dangay uh-huh. gis ku ñëw ne la defal ma bilan. Mhm. loolu ci biir màggal du pour def ay bilan. Mhm. bilan bi docteur bi koy def mooy seet. ginnaaw bi mu seetee sa yaram ba pare. moom ci wàllu. jugement am mooy xool est-ce que war naa la defal bilan wala déet. Mm-hmm. loolu dañuy bañ rek nit jóg. Mm-hmm. ñëw hôpital ne yéen a ne kenn du fay man rajo laa bëgg a def wala lii laa bëgg a def ndax rajo. Mm-hmm. ak ay analyse loolu day yokk docteur bi ay bunt yoo xam ne su ci jaaree gën a xam sa feebar. donc nit ki su feebaree ne ñëw rek bàyyi boppam ak docteur bi. mu seet yaramam seet li ci war mu taxaw ci. loolu aussi ñuy dalal xelu nit ñi euh, ci biir màggal gi dañuy liggéey ak ay kuréel yoo xam ne dañuy indi ay médecins spécialistes. Mm-hmm. dinañu indi ay cardiologue ay gynécologue ay dermatologue spécialité médicale yëpp ak chirurgicale yëpp. dinañ mm-hmm. leen indi à Touba. Mm-hmm. armée nation dinañ déployer fii ñaari hôpitaux. yoo xam ne c'est des hôpitaux de campagne. nga xam dañuy indi beaucoup de spécialistes. ñoom chaque année dañuy ñëw di jàpp ci màggal gi maa ngi profité pour remercier leen remercier aussi partenaires yi ciy jàpp yëpp. Mhm. ndax kuréel yëpp ay ñëw fii ba Ndar ba Kaolack ba Tamba. Mhm. kuréel buy ñëw day ànd ak ay médecins. Mhm. te loolu liggéey nañ ci ak kuréel yi. ndax bind nañ kuréel yëpp nga xam. teniroon nañ sax réunion ak kuréel yi. Mhm. Mhm. pour ku ci nekk ñu xool yan ressources humaines nga am. ak nan lañ leen di dugalee ci biir dispositif mhm. kon mën nañ ne pèlerins yi. ci wàllu santé taxawaay yi ci war yëpp. maanaam ministère de la santé ànd na ci ak région médicale de Diourbel. ak district sanitaire de Touba ak hôpitaux yi fi nekk yëpp. pour assurer pèlerins yi une couverture sanitaire de qualité. boo xam ne kenn du ci fay dara. donc loolu. ñu ngi wax nit ñi rek képp koo xam ne sa yaram sutante na wala nga gis ci loo xam ne maanaam dalul sa xel mën nga xool béréb bi nga xam ne fa nga nekk mhm. hôpital waru ko waru ko sori ndax dëkk bi yëpp dañ fi teg ay bérébu fajukaay mhm. yoo xam ne comme ni ma ko waxee ay mhm. points avancés la dañ ko jël yóbbu ko ba ci quartier périphérique yi nga xam ne hôpital da leen sori wala poste de santé da leen sori kon fu waay mën a nekk rek su sa yaram sutantee mhm. war nga mën a am foo xam ne mën nga fa faju mhm. te doo dem distance yu sori mhm. te dispositif boobu ñu teg dañ ci boole prépositionné ay ambulance maanaam artères yu mag yi nga xam ne nit ñi dañuy jóge ci yenn gox yi di ñëw artères yooyu yëpp prépositionné nañ fa ay ambulance ñu ngi liggéey ak SAMU national ak sapeur pompier pour assurer prise en charge urgence yi am na régulation boo xam ne sami moo koy def régulation soo ko déggee. mooy euh, euh, groupe bu médecin urgentiste. yoo xam ne dañuy jël ay information ci structures yi. structure de santé yi. pour xam le nombre de lits disponibles. xam le nombre de spécialistes. xam le nombre de blocs disponibles. en temps réel pour suñu amee benn urgence. ñu xam fan lañ koy yóbbu. day wuteeg li nga xam ne moom la ñuy gis léeg-léeg malade nekk ci ambulance di wër fu mu dem ñu ne fees na loolu ñun liggéey nañ ci liggéey boo xam ne mhm. du fi am du fi am ndax yaa une régulation boo xam ne mhm. day coordonner activité de prise en charge urgence yi mhm. depuis le ramassage mooy maanaam depuis fi ñu gisee urgence bi lu mu sori sori dinañ déployer équipe mu dem jëli ko su koy jëli ji ci yoon wi uh-huh. day jokkoo ak régulation bi régulation bi orienté ko. wax ko fan lay yóbbu malade bi foo xam ne su fa àggee. équipe bi mu ngi taxaw di ko xaar. mu ngi taxaw di ko pour su accès rek ñu jël ko en charge. Mhm. te damay fàttali ne ci biir loolu. Mhm. ambulance médicalisée la ñuy prépositionné. ci mhm. yenn sites yi. nga xam ne malade bi fañ ko jëlee. ba fa mu jëm ci hôpital bi. dañuy tàmbali faj mi. en plus de ce dispositif ñu ngi liggéey ak armée. comme chaque année prépositionné benn hélicoptère. fii ci héliport bi. pour évacuer yenn urgence yi nga xam ne mënuñ ko faj ci biir dëkk bi. biir dëkk ba pare loolu itam dañ ciy liggéey ak principal Dantec avec les grands hôpitaux de Dakar. Mhm. que ñoom pare nañ. pour que saa yu loolu amee ñaanuñ ko yàlla mais dañuy taxaw rek jël mhm. suñuy matuwaay loolu liggéey nañ ci ak hôpitaux yi nga xam ne ñoo nekk Dakar ba nga xam ne période màggal mhm. dañuy libéral ay lits ak aussi prévoir des évacuations d'urgence héliportées héliportées waaw donc Madame vraiment dispositif d'urgence bi mu ngi fii lépp mat na dispositif de prise en charge foraine avec des constatations foraines mu ngi fi mhm. dispositif de sensibilisation ndax ak feebar bi ñuy dégg muy Ebola bi mhm. dañu jël ay relais yóbbu leen ci kër yu mag yi mhm. formé nañ leen ba pare pour ñu accompagner ñi nekk ci kër yooyu pour suñuy joxe ñam ñu mën a fàttali nit ñi raxasu ci am na aussi ay kit d'hygiène yoo xam ne jox nañ leen ko mm-hmm. pour wàllu hygiène bi ñu taxaw ci bu baax ci biir kër yi nga xam ne fa mbooloo yi di daje mm-hmm. ndax léeg-léeg dañuy teg bernde yi rek ñu sant mm-hmm. Fall ak Jaañ ak ngéeni dal di gaawantu dugal seen loxo <laughs> loolu moom jël nañ ci ay matuwaay ndax fii Touba euh, li nga xam ne moom lañ fi rafetlu mooy organisation bi am ci biir kër yi kër goo gis su màggal bi di jub si su dul màggal sax organiser nañ ko noo xam ne. Mhm. soo ñëwee ci kër gi jaare fi nga war a jaare uh-huh. mën nga liggéey fa liggéey bu rafet bu jàppandi. Mhm. ci kaw ña fa nekk dinañ la ci jàppale ba na nga ko bëggee mu nekkee noonu. mu nekkee noonu waaw kon loolu. ñu waaw dinaa la andil euh, Aj Assane nga nga rajal ma ko ñu xool ndax <laughs> problème ceeb la am wala problème mu euh, santé Aj Assane nañ ñëw sa dossier euh, monsieur le maire waxtu waa ñuy dab malheureusement ci wàllu kaaraange sécurité ndax fu mbooloo am laaj na sécurité. Euh, donte préfet bi malheureusement euh, teewul waxtaan bi euh, lan lañ si war a mën a jàpp lu war a mën a dalal xel yi muy muy ñi dëkk tubaa wala ñi ñiy fekk si ci wàllu maire bi lan lañ si war a mën a am comme information. waaw jërëjëf wàllu sécurité tamit ni ma ko waxee li ci war lépp jël nañ ko ci. Mhm. waxtaan nañoo ko ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal. Mhm. muy ni nga ko waxee autorités yi sous préfet Euh, tàmbale ko sax ci gouverneur parce que ci la tàmbale ba ci préfet sous préfet ñoom ñëpp ñëw waxtaan nañ ci ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii muy police ak gendarmerie mhm. ak ba ci sapeur pompier ñooñu ñëpp waxtaan nañu ak ñoom ay réunion malgré même yi nga xam ne def nañ ko mu concerné màggal bi muy CRD CLD mhm. mais defaat nañ yeneen ak ñoom mhm. commune bi ngir euh, bi nga xamee ne màggal gi di jub toujours dañuy waajal dëkk bi niñ koy raxasee ci mbalit ak taq-taq mhm. euh, damay wax ne mbalit am na ci suuf mbalit am na ci doomu aadama yi ni ma ko waxee ci ci waxin. ci waxin waaw waaw mooy mhm. ñi nga xam ne euh, ay duubulkat lañ. Mhm. ñooñu ñu ngi ci biir ñii dañ ciy profité ñëw. ngir waajal si màggal bi ndax dañuy dalse comme ni nit ñi dalse di waaj ngir xool fan lañ war a mën a jëm ak fan lañu war a def loolu léppi nag waajal nañ ko. am na opération yoo xam ne nii. nag euh, ñi ngi ci. Mhm. Euh, comme télévision la nag. booy mhm. waajal dara ci lu jëm ci loolu doo ko wax. Ah. waaye li ci war jël nañ ko. Mhm. yaakaar naa ne. incha allah bala màggal ga. li war ci côté bopp yëpp danañ ko def li nga xam ne nag mooy côté beneen bi tamit muy li nga xam ne ñoo fi nekk. demandé nañ renfort renfort bi mhm. ñoom ñi ngi fi mhm. ñi ngi liggéey ci côté bi comme ni nga ko waxee ci sareet bi mhm. ci ngir jàppandil liggéey bi ngir mu mën a dox nga commune bi ni ma ko waxee lépp moom la war euh, li docteur di wax ak ñëpp sëñ Mbàkke mi ba li sëñ Mbàkke wax lépp commune bi la wax maire bi nga xam ne moom la fi yàlla teg nag euh, yàlla def na muy koo xam ne yooyu moo ko ñor ndax li may wax ni sëñ bi wax doomu daara daara da koy ñor ba tax na dañuy jàpp ci loolu. Mhm. commune bi jàpp ci njàngam alxuraan mi. Mhm. jàpp ci wàllu santé bi ba tax na mhm. ñoo tax ñu am commission santé. am commission bu yor wàllu daara yi. yor wàllu njàngum alxuraan mi yor commission yor njàngum école mi. loolu lépp dañ koy def ndax sëñ Tuubaa ni mu ko waxee alxuraan mooy lépp. ci ñun ñii di wax ak ñun ñii ñëpp kenn ku ci nekk ci daara yooyu nga génne ba ci maire boobu. kenn ku ci nekk amaan nga sa daara ci si biir kër. ngir loolu li tax ma ñëwee ci mooy di sëñ bi wax ci temu thème bi muy alxuraan. alxuraan mooy lépp ndax Serigne Touba lépp lu mu am ci loolu la ko amee kon commune bi dafa war a jàpp ci alxuraan ji mm. ba tax na jàpp na ci daara yeeg yëpp lu mu ci man mm. fas yéene na budget bi daan am daana am lu mais bii di ñëw ren mm-hmm. incha allah daara ji dañ daara yi dañ cee am seen wàllu bopp boo xam ne nii mm-hmm. danañ ko jot ba mu mat sëkk mm-hmm. ngir lii ñu jàkkaar loolu muy jumaa ji dama koy wax ne Serigne Touba rek moo am lool foo xam ne nii bis bu set des na fa jàng alxuraan kaamilu alxuraan ñett yoon ci bis bi suba tisbaar takkusaan boo xam ne amul muy taw amul muy naaj amul dara waxtu ne dana am mhm. dama jàpp ne loolu rek mën na aar Sénégal mhm. kon nag loola commune Touba moom dafa jàpp ne daara yi ay daaraam la mhm. maire bi it li mu jàpp mooy moo war a soutenir daara yi ndax nitu daara la doomu daara la kon ñun ci wàll woowu yëpp jël nañ ci li ñu ci war a jël ngir jàppale ko waxuma lu du màggal sax mm. lépp lañ ci jàpp màggal gi nag malgré ma di siwaat question bi nga waxoon te mm. ma sëñ bi alxuraan ji ñu waxoon rek moo tax ma ñëw foofu ah. pour wane ne suñ position ñu it ci wàllu mm-hmm. alxuraan bi mm-hmm. waaye sécurité bi moom mm-hmm. xam nañ ne manqué na nag Touba manqué na manqué na fi wax dëgg yàlla loolu moom loolu moom dama lancé waale uh-huh. autorité yi ba ñu xam ko parce que li tax mu manqué fi mooy am nañu police am nañu gendarmerie Mm-hmm. mais li manqué ba e-, effectif moom moo matut. Mm-hmm. boo demoon police tey biñ koy ubbi cent personnes moo ko ubbi woon boo fa demoon tey doo fekk juróom fukk. Mm-hmm. waaw élément gendarmerie la même chose. ah alhamdulilah nag ñu ngi santaat remercier waat le président de la république ak état Sénégal. ci collaboration ak sëriñ bi ñu ngi tabax benn caserne. ba tàmbali ko. sa euh, bu bu bu bu gendarmerie. yaakaar naa ne loolu bu ñëwee. mais xam nañu tey euh, président mu ngi mu ngi Touba. Euh, est-ce bokk na xam naa si liñ koy laaj wala liñ koy ñaan moom lu ñu si tontu si xibaar lu ñu si mën a jàpp ci wàllu ba thème commencé nañ ko fi mu ne tey camp boobu mhm. ma ko nga xam ne dañ ko war a def ngis indi fi gendarmerie mhm. euh, ñu nekk fi mën a gën a aaraat dëkk bi mhm. loolu laaj nañu ñun li ñu am muy terrain bi jox nañ leen fu yaatu foo xam ne ni commune bi moom jox na leen ko mhm. état bi tàmbali na mhm. fi ñu nii boo demee ña ngi ci wàllu liggéey ba mhm. muy sapeur pompier itam kenn ku ne xam na ne Touba lim boot dafa bëri ci camp bi tuuti woon na laaj nañ moom itam ba wutal nañ leen fu mu war a nekk loolu daal mooy des li des daal mooy wàllu santé bi sëñ bi waxoon manqué na fi moom it ci des ndax population Touba bu amee ñaari hôpital dëgg la commune bi mu ngi góorgóorlu di tabax di tabaxi dispensaire ngir di ko jàppale. mais ñaari hôpitaux yu mag ñoo fi nekk niveau un ak niveau trois. waaye ñoo ñu ngi ñaan lancé waat population ak président de la république comme mi ngi fi mun naam sax mi ngi ñuy seetaan. Uh-huh. que mu jàppale waat ñu ci Touba. Uh-huh. ci wàllu santé bi. yokkal ñu hôpitaux yi ba nga xam ne. nit ñi paju mi danañ mën a faju ci jàmm mhm. ndax dëkk la boo xam ne waxtu wu ne nit ñaa ngi sanc mhm. ci dëkk baa ngi gën a mhm. commune bi daal li nga xam ne moom wax dëgg yàlla mooy taxawaayam équipe bi nga xam ne ñoom la fi yàlla teg ca président ca maire Abdou Lahad Ka jiite ko ak mbooleem ñi mu àndal muy adjoint au maire yi ak euh, ñi nga xam ne ñoom la bokkal liggéey bi muy conseil yi daal li seen mbébét ci Sénégal ci Touba mooy fexe ba Touba lépp loo xam ne ni aajo woon na ko muy ndimbal loo xam ne maire bi war na ko mën a def mhm. lépp ñu def ko fii ba nga xam ne dootuñu jéggaani daal dootuñu jéggaani boobu je crois que leer na euh, jërëjëf euh, euh, sëñ Mbacke nga tënk ndax waxtu bi daanaka dab nañu dañu dañoo xaabaabal rek <laughs> nga tënk nga tënk mooy ñu tëj ak mbokk yi rek ne mhm. màggal gi lu am solo la uh-huh. ci réew mi ak ci diine ji mhm. jàpp naa ne li fiy daje bàyyi ko ci kër diine. Mhm. toog benn jataay di waxtaan amut feneen. Mhm. saa bu dikkee conférence bi ma lay wax boo ci tawee. Mhm. kër diine ci Sénégal yëpp. association islamique yëpp. ngay fekk ñu toog bokk benn jataay bi di sottante xalaat ci lu jëmale kanam diine. loolu congrès la. boo xam ne mën nañu wax ne jullit Sénégal ñoom. am nañ bis bu ñuy daje di waxtaan. muy màggal Tuuba. bis bu ñuy pencoo. bu ñuy pencoo di waxtaan. bi ci des ci suba màggal gi am na benn jataay boo xam ne it. ñoom dañuy joxe seen wàll. du rek ñun waxtaan. waaye day am ñu bàyyi ci këri diine yi. Mm. ñu sëq ko. Mm. loolu lépp ngir wane ne. Mm-hmm. Touba dajewukaay jullit ñi. Mm-hmm. kon lu ne luy defar mën na fi bàyyi ko. mën na fi bàyyi ko. ci loolu it li ñuy bàyyiloo xel ñëpp. Mm-hmm. ñëpp di ci di ci cëral yéen ñi yëngu ci tas xabaar. mooy ñu xam ne ñun am nañu roywaay yoo xam ne war nañ ko wan adduna. suñ bëggee suñ réew mi jag. sëñ Touba ñi mel ne moom. maanaam mën nañoo faj suñu bopp suñu ay jàngoro mën nañ koo faj nañ koo faj bu wér-wér. ci am nañ ñoo xam ne buñ ko tegee ci kanam xale yi wan leen liñ def mhm. xamal leen ne fii lañ jaar mhm. boo lëggee mu fi jaar danañ mucc moo gën wutal leen yeneen roy waay mhm. di leen tàggat ci yeneen yoo xam ne amul leen njëriñ ci màggat xam ne amul njëriñ ci yow diini ji daal uh-huh. moom la sëriñ bi doon woote fii nattangom ñi mu am ci réew mi yëpp moom lañ doon woote moom lañ doon woote kon loolu jàpp naa ne uh-huh. nañ ci jàpp màggal gi jëmm na ko uh-huh. ci anam yu bare bari kilifa diini yi fii ñëwit loolu lañ jëmal ñun ñëpp ñu ngi bëgg lu dajale nit ñi nga mën a am benn jotaay boo xam ne koo boo soxla woon kër kilifa gune ne mhm. kenn jóg taxaw ne la maa ngi foofu loo fa bëgg saaf mën naa saafarawu jàpp naan ne loolu am ngeen ñëpp mën nañ cee jàpp waaye yéen tas taskati xabaar yi ngeen dimbale ci tasal ñu loolu tasal ñu loolu waneel ñu loolu moo gën di ñu waneel que ñu ngi lay ay fo ak <laughs> <laughs> euh, patron de presse yi docteur en deux minutes malheureusement pour nga dama bëgg nga rebondir si li euh, monsieur le maire wax par rapport ak besoin en matière de santé à Touba rapidement euh, euh, santé en matière de santé am na ay effort yu état bi def mhm. mais Touba dafa nekk une ville un peu particulière mhm. mooy que ni urbanisation bi c'est galopante mhm. comme y la gratuité des parcelles maanaam dañuy maye suuf si dëkkuwaay bi day gaaw nga xam parfois service sociaux de base yi duñu suivre urbanisation maîtriser ko quoi parce que da gis ay villages entiers yu jóge dans le Baol ñëw implanté si à Touba parce que fii ay xéwal la fi nekk le transport am na ñoo xam dañuy ñëw indi ay charrette pour se livrer au transport am ñoo xam ne commerce la ñuy def donc loolu dafa indi démographie bi nekk une démographie galopante soo xoolee Touba li fi nekk ci population ñun suñu biir liggéey dañu gis ni moo ëpp soo jëloon tey population de Fatick yëpp population bi nekk Touba moo leen ëpp soo jëlee population de Tamba dugg population yëpp boo ci jël Touba moo leen ëpp population ñun dañ ciy liggéey mhm. euh, donc euh, loolu dafa indi yenn zones yi amagul infrastructure sanitaire mhm. maanaam am na poste de santé yoo xam ne war nañ ko fi liggéey ak ay centre de santé ak ay hôpitaux loolu ñun en tant que service de santé am na planification buñ ci def te soo waxee planification wax projection maanaam at yii di ñëw. dina am ay postes yu ñu implanté déjà ci 2015 bi. ci biir li ñuy wax yi mooy budget consolidé d'investissement. ministère de la santé dugal na ci ay infrastructures yoo xam ne war nañ ko tabax fii ci Touba. Touba identifier nañ sites yi ñu koy tabax ba pare. Mhm. te financement yi yemb na ndax mu ngi ci biir budget bi. collectivité locale moo koy exécuter. Uh-huh. Euh, loolu dina. xaw a régler certaines questions. leneen li mooy en attendant ñuy am ay structures de santé. ñu ngi def ay stratégies avancées vers les populations yoo xam ne. xëy na fa ñu dëkk amul ay. structure de santé de santé waaw stratégie avancée yooyu uh-huh. dañ ciy profiter di offrir des paquets intégrés de services uh-huh. mooy maanaam li nga war a mën a am ci benn hôpital dañ koy dajale dëxëñ ko ci benn paquet de services. Mhm. mën ko fexe ba population yi mën ci bénéficier yu mhm. au cours des stratégies avancées. Mhm. loolu aussi ñu ngi ciy liggéey peut-être loolu limite bi <laughs> contrainte bi ci am. Euh, mooy aspect logistique yi. maanaam léeg-léeg ñu. monsieur le maire euh, tontu na sa sa sa crainte yi am c'est c'est réglé parce que. <laughs> <laughs> laaj tontu yi génn je crois. génn na. ni ko waxee. ma ko waxee ne ñi ngi ñi ngi ci wax na ko junj na ko léegi mhm, mhm. commune bi mhm. war na tabax ñaari poste de santé centre de santé yoo xam ne benn Baxdaad muy dëkku bi sëñ Abdou benn Aliya yooyu yëpp pour yokk ko ci ci ni ma ko waxee suñu collaboration ak fi muy tegal parce que ñun moom mooy wax ne fii baax na fi baax na war nañ ko fee def ñu xam ne fii warees na ko fee ak yeneen yoo xam ne naal nañ ko ci 2015 bi ngir def def ko loolu mooy li nga xam ne euh, ci lañ ko jàpp dama doon lancé waal rek moom xam na. xam na waaye pour que ñu xam ne population fi la toll. te gis nga mi ngi def te gis nga docteur. defaale na communication te Eva Marie Coll du fay dara tey. waaw te tey def na communication merci monsieur le maire. Euh, jërëjëf Serigne Mbacke jërëjëf docteur Dieng euh, Assane Gueye nag moom docteur dina ko rajo ñu xool naa dafa feebar ou pas mu nekkoon li ci penc bi ah Papis Diaw doon ko présenté euh, bii di ñëw Assane Gueye day ñëwaat incha allah ak yéen ñu nekkoon fii ci Touba ci kanamu juma ji. TFM donc euh, tàmbali liggéey bi ci màggal bi comme ni mu koy defee incha allah fii ba ba muy jeex doo leen ci umpale dara ci euh, fànn bu mu nekk ak équipe bi yëpp may remercier ñi ma àndal ñëpp ak euh, waa production ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ci jàpp jërë ngeen jëf ñu jox leen ndaje ak Assane Gueye ci bi ci penc bi incha allah alxames merci.